الأحاديث ma ne nit koo xam ne taw bu ma man na am na yaatu yaatu pour bañ am na yaatu yaatu pour kàddum du ko mooy baat bi dafay am ñaari maana maana mu jege ak maana mu sori nga tudd ko mu jamtalu maana mu jege mi te maana mu sori mi nga ci soxla suba boo leeralee sa wax rek mën a dem sa yoon loolu lay jàngal ne dara jàngale ci anamu yoonu jàngale fiq hmm. dana fekk téeméeri masalay fiq hmm. yoo xam ne jàngale boobu lañ ko teg hmm. maanaam jullu àtteem sariyan tumaranke waaye dañ ci xamee firim bar bu ñu ne ko dama ma daam koo xam ne dafa soxla woon a buur ci buuri lislaam yi bu bëgg a joti ci moom rek gaa ñu koñe ko mu dikk wax bëkk néeg ko ana ahmadu nabi al ana ahmadu nabi al mafons donc loolu gars yi dañu sawaree ci ay booba lañ ko kalaame ne kii bu xoote nu ana ahmadu nabi al mafons buur bi xoolu ko mu ne ko yaa xoote nu bu mu ne ko diiri mu ne ko loo mu ne ko dëmani al mafhum ama anta la tahmuduhu dama ne sant naa yonent bi Amadou maa ngi sant waaw dama tudd tur bi Amadou maa ngi sant la tawilul maari xam maa yi ci la fexe ana man Amadou maa ngi annabi al hmm. mafhum sa gaa yi na jàpp ne Amadou bi tur yonent bi la tudd rek ndax loolu hmm. mooy maanaam mu jege mi fekk maanaam mu jublu doonte bokkul ak seen dégg maanaam mu wér la loolu lay jàngale nag ci maqaam waaw dégg haka nettali na alxaaris ibnu hammaam xaal mm. mu ne ajmaatu dogu woon naa xiina mm. qadaytu waxtu wa ma jeexalee mm. manasikal haji jaamuy haji waa xamtu tema taxawal wadaifal haji waru gari coow mooy waru gari wax la bayka wasajji ak tuur deret bi ma joxee manasikul haji toppatoo talbiya toppatoo nahrul hadaya hmm. xam ne lépp lu aju ci aj def naa ko hmm. waa xamtu tema taxawal wadaifal ajji waru gari coow mooy waru gari yëkkati baat ku ci hmm. pour la bay ka ak ñaan wasajji ak tuur deret mooy loj ay hadaya dama dogu woon ana xasida ba ma jubluwa taybata madina dama ne damay dem madina maarufkatin ànd ak setti min bani saybata mm-hmm. ñu bokk ci banu sayba mm-hmm. arab yi ma àndal nag mm-hmm. waa quraysin lañ ñu ngi bokk ci banu saybata ibnu osman ibnu talhata li asura ngir naa nemmee ko xabran nabii xabru bu yonent al mustafa kare ku ñu tànn gis ne gannaaw haj naa makka damay dem ma siyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaxruja ak ma génn mm. min qabili man ci wàllu ki nga xam ne mm. xajja xaj na mu mm. wajafa te mu beccingal ndax gannaaw dafa ñëw ci mu ne man xajja walam yasur nii faqad jafa ko aj mag te siyaare hut ma kooku beccingal na donte hadis bi am na luñ ci wax itam daal siyaare yonent bu dul hadis bi itam ku ne xam ne baax fu urji fa yem yem leer mooy ñi wax te du dëgg mm-hmm. bi annal masalika ci naka suubu way mm-hmm. saaxiratun way fees lañ maanaam way raglu lañ mm-hmm. bi annal masalika ci naka suubu way mooy yoon yi saaxiratun way raglu lañ ñi wax ne yoon yi amul kadanga wa arabal xaramayni arabi xaramayni yi mutasajiratun way xare lañ ñu wax ne fitna moo tàkk ci diggante arab yi dëkk ci haramayni sharifayni mm-hmm. ba tax jàmm amul karanga amul mm-hmm. fayirtu ma gëlëm bayna isfaqin ci diggante ragal mm-hmm. yusabitu nii goog dana ma tëxee dama hen ci ñàkkaa dem waaswaqin ak i cofeel tuna situ nii goog dana ma sawarloo léegi su ma xalaatee njëriñ la nga fekkee Mm. Ah, mm. te su ma dee ci yoon wi siyaare du am ah ma mm. ne naa toog waaye su ma xalaatee mbir mi ni mu ma ñoree te dee kenn mënu koo daw fu ko yàlla dogalee lay xam ah ma ne naa dem rek si yow laa nekk ilaa ulqiya basaaneem fii rawee ci sama xel mi al istislaam moomatu gannaaw gi mën a tal walanteeru damay dem siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. xam ne lu am lu la yàlla dogal hmm. wa taalib siyaare fi xabri yi hmm. ak nota siyaare xabru yonent bi alayhi salaam fantamtu matan alqoodata waruwaay bi loolu xamee matan waruwaay waa dattu ma xadu alhoddata xaduwaay waa ji tam waajaay bi nga xam ne moom la yoon wi laaj wasirtu ma dox waruf xataa ndak certifié ma doxal ak samay àndandoo waxtamtu hmm. ma tànn alqoodata waruwaay wa ahdattu hmm. ma qadu alwaddata qaduwaay wasirtu hmm. ma dox wa ruqata ànd ak sett laanal wii duñu boyu xalaa marjatin ci taxaw dem ba ca kanam ñu yokkat di taxaw loolu xamul wala nu nii du ñu du ñu doxaat hmm. yi fii ta wii min ci téppér lu mooy dox bëccëg wala hmm. dul jëddu caa genn rañaan dox guddi hmm. dox woy itam la dox amul guddi amul bëccëg dañuy yendoo dox di fanaanee dox ni lañ déparé Makka hatta waa fay naa ba ñu dikkal bani harbin banu harbin bañ dem ci dëkkuwaay boo xam ne giir gu tudd banu harbin ñoo ko dëkk waxat aboo tamit moom wàññeeku nañu min harbin tukkee ci xare mm-hmm. xam naa ci xare sax lañ baxoo nag mm-hmm. faas maanaa ñu dogu mm-hmm. an nu qaddiya ba ñu jeexalat zillal yawmi keroog ba cëg ba fi hillatil qawmi ci wàcc waayu nit ñi ñu ne kon ba cëg bi tey fii la ñuy yendal fii ci banu ami wa baynama nahnu diggante ba ñun na taxayyaru danañu tànn almunaaxa yësuwaay bi ñuy seet fu ñu yeesal suñ gëlëm yi mm-hmm. wanaroodu te ñuy sàkku mm-hmm. alwirda alwirda dox mm-hmm. mooy ndox mu ñuy naanee annu xaaxa madaa ji sedd xam nga naqaxa mooy dagg na ndox mu sedd day dagg mar mata madaa ji sedd istibete rek ray naahum gis nañu leen yar ko doona ñuy gaaw ñuy daw ñuy saj kaan nahum daanaka ñoom yóbbi doona danañu gaaw ila nusubin jëm ci ay xërëm bi ñuy pare pour dal rek hmm. foofu gis nañ leen ñu ngeen dox dox bu gaaw a gaaw hmm. mel ni ñu jëm ci seeni xerem hmm. faraabana sikkulooñu insiyaaluhum seen ak gi ñu xànd de dem bu gaaw a gaaw bokk fuñ jublu ak ñoom mbir miñ bawoo ak dig-dig yi jiitu woon loolu nag jaaxal wasaal naa ñu laaj maa ana lan baaluhum mooy seen mbir ñu ana lu xew hmm. fa na xad xad ah, xadara teewal na hmm. naadiyahum seen penc mi hmm. faqihul arabi faqihul arab fa yaraahum seen ak gaaw li hada sababi ngir bi la sabab ñu ne jàmm mu ngi ci penc ma moom la ci lañ jëm fa qultu ma wax li rubqati ñaa sama setti si moo samay gaye leen a ah, ala nasaru hmm. du ñu fekke ji hmm. mañ maa xayi hmm. daje waayu gàdd gi dina tabayana ngir nañu bérlu arus dañu jub minal xayi ci réer mais ah nañ dem ndax lañ fawu ñun soxla nañ ko fa xaaloo ñu ne ma laqat asmaata wallahi déggal nga idaawata bi nga wootee li nga wax nañ ko nangu de wanasaata layee nga biir mm. wama alawta te gàttañ loo ci layee biir gi mm. yi leen xam ci àll mm. boo àndee ay nit boo amee xalaat bu rafet da ngeen ko yàggee su ma naxaat naa topp ñu buur nattabihoon bi doom danañu topp alhaadi ya aji gindi ji wana ummu te danañu jublu anaadi ya penc ñun comme ay gan lañ waaw am kuy jiite dañu am fuñ jaar foofu lañ topp ci moom jëmale ba ñoo dajee hatta ida atlal naa ba ñu jege jee xale yi ci moom bañ ko jegee watas raw naa te ñu sapp mooy bañ jege jee penc ma watas raw naa te ñu sapp mooy ñu gis al faqiha faqihu al manhuda kere ku ñu buur ilay jëm ci moom bañ demee ba àgg ci penc ma jege ji ko ba gis ki wax ne moo fi ñëw al baytu fekk naa ko abasay boobu laa xam ne abu saydin la te suqari kay borom bi fen wal mm. buqari ak i fen mm. buqar it baax na dafa am baat yoo ne mm. ñu leen di ñoom rek wala fekk rek lu ñu dëppoon maanaam moo leen a jiitu te bokk ak moom natt yeneen suqar buqar du ñu rek mu ngi mel ni xasan sama bakkan rek mm-hmm. wala seytaan leytaan mm-hmm. duñoo leytaan rek waaw su xar bu xar noonu la it mm-hmm. bari yoo demee noonu subaa ndax mu ngi jëriñ taw kii wala du ko kay boromi fen wal bu xar wal xawaafiri mm. ak njuuma mm. wal fiqari ak i faqara mm. jommalekat bi ak fasaatu lisaani gi moom wa qani atamma te bir moom kaala woona mu al qafda kaala wi hin bi ñuy wax qafda gis nga bu dafa kaala wi hin bi ñuy wax qafda mooy dafa laxas ba gom ne ding moom duudi lu muy war ci nopp càmmoñ dafa kaala bu mel ni digg mm. mu am mu yore mm. tegee ci nopp càmmoñ bi muy mm. xam daal mm-hmm. noonu la kaala woon wasamala te mu lambayoo asama lambayo tëb istimalatun sama itam moom la rek waqaada mu jikki al qurfu saa tooginu qurfu saa toog mel ni ku këppu noonu waqa waa yaanul xayi kilifaay gàdd gi mm-hmm. muxtafoona way peg lañ bii ci moom hmm. kilifay koñ bang ko wër hmm. waar la tum seen way jaxasoo yi hmm. multafoona way daje lañ xale yi ci moom ñu ne ñu def ñëpp ngi watam yaqul mu ngi naan saloo nii laaj jan ma xanil moo di laate ci lënt ku ci am lënt andi laaj ma yu jafe yi wa taw di woo te na ngeen leerlu min nii ci man al muskilaat yu lënt yi ku jaam yu lënt nañu laaj ma hmm. di ginnaaw ci buur bi nga xam ne fatara bind na mu asama asama hmm. waa la ma te mu xamal adama asma adama alasma hmm. turi maa ngi gin ci mi bind asamaan xamaloon adama turi mbir ya malaaka yi xamu doon inni man la faqihul arabi maay borom xam-xamu fiq fiqam arab yi mm-hmm. al arba way sàll ci arab mm-hmm. wa alamu man maay gën cay xam ni képp koo xam ne mm-hmm. taxtal jarba nekk na ci roon asamaan xam nga jarba ajiraam ma lay firi asamaan biddi bi génnee dafa nidu ay picc yu tegee ci yaram moo tax ñu ko jarba loolu wa alamu man maay gën cay xam yi koo xam ne taxtal jarba nekk na ci roon asamaan moom danaa xaw ba mu demee gaa yi koñe ko mooy leen ana ahmadu nabi al mabhos ana ahmadu nabi al mabhos gaa ñu ne ko yow da ngaa woote nu ko wóor gaaw ko léegi léegi pour rek sàkkal na ko buur bi sàkkal pexe ne kii day woote nu ko wóor mu ne ahmadu fi'lu mudaari wala waaye ji bu ko buur bi waxee nag yow yaa wax ne yonent nga mënoo ko dee man dama ne ana ahmadu nabi al maf'ul afa anta la tahmadu dama man sant naa yonent bi yow ana man ahmadu maa ngi sant an nabi al maf'ul xam nga ku man tawriya la mën a man la waaye doo ko jox na ana ahmadu nabi al maf'ul afa anta la tahmadu xam nga du wax téere loolu na lay jàngale ci maqaamaat yi maqaama bi waaw léegi nag dana ci jàngale lu war a mat téeméeri fodwaa ci wàllu masalay fiq hmm. ma ne ci bu mu daan woon isdaxaw hmm. loolu de biir wax la moom dañoo se dañoo se foo ba dalee dégg nga hmm. dafa xultu liru xati ala nasaada gaañu ñooy daw mu laajte ñu ne faqihul arabi moo fi ñëw mu ne fa qultu ma wax li ruqati ñaar samay àndandoor allah nashhada mo duñu teewe majmaa xayi dajewaayu gàdd gi dina tabayyana ngeen nañu bir la arus da njub minal xayi ci réer dama wax samay gaay ne leen ah duñu seeti li ñii di seeti ndax lañ bëgg buy xam-xam buy girindi ni ñun war nañu koo bëgg nañ dem ci ñoom affaire doggan warul te bokk nit ci lu baax li na taata na tabayana ngeen nañu bir la ñu minal xëyi ci réer fa xaaloo gaañu wax ma ne ma ah laqad wallahi déggal nga de déggale nga de istaawata bi nga woote ah li nga wax ni de amul teg baat nañ seeti fu suñ njëriñ nekk nangu nañ ko de wana saxta te laaye nga biir wama alawta te gàttañ luhu la te itam xandoo lii la jëriñ su ma naxaat naa topp ñu buur nat tabio birom danañu topp alhaadiya aji gindi ji wana ummata danañu jublu annaadiya penc mi ñun ñëpp ñu buur xam na kuy wane yoon wi koo lañ topp ci kawam jëmali penc mi nga ne ci la faqirul arabi nekk hatta ida adlal naa ba ñuy jegee fee alayhi bañ ko jegee wa tasraf naa te ñu gis mooy ñi sappu mm. alfaqiha borom xam-xam almanhuda kere ku ñu buur ilay jëm ci moom mm. bañ ko jegee mm. ba seen kiñ ne moom la nit ñi demal alfaytuhoo fekk naa ko aba zeydin ndeke suñu waaji la abu zeydin da suqari kay boromi fen wal buqari ak buqar taabi la ci suqar boo taameewoo mooy baat bu xam ne dafa bokk ak bi ko jiitu maana mm. ñi bokk nattu mm. wenn xaraf xaajale leen mm. te duut bu duut bi ko jiitu duñ ko jëfandikoo bu xar duñ ko jëfandikoo ci lu dul su xar mu ngi mel ni xasan basan basan doo ko jëfandikoo ci lu dul xasan wala nga ne saytaan laytaan laytaan doo ko jëfandikoo ci lu dul boo ko defee ma xasan basan rafet na trop ah waaye doo huwa basan te wala nga ne seytaan laytaan kooku seytaan piir la waaye doo huwa laytaan suqar buqar noonu la taabion la gis nga bu baax a baax wal xawaafiri ak i fen mooy ak i wal fiqari ak i abu seydin la borom manoore bi rek comme ni nga xamee ee eh, waqad axtamma te moom kaala woona mu alxafda kaala hin bi ñuy wax xafda laxasuf tal di yor tuuti ci booru nopp bi wastamala te mu lambayoo mu def istimala toon samma bi nga xam fu xaayi di ko xaaye wa qaada mu jékki alxurfu saa tooginu xurfu saa mu gappare ko sëgg mel ni kuy këpp noonu waaw yaa doon xayyi kilifaay gàtt gi muxtafoona way feeg lañ bii ci bu ko defee kilifaay penc maa wër nag waat la tuum seen way jaxaso multafoona way dajee lañ alayhi ci moom yeneen ñi ñëpp a ngi ci mbooloo lu ci tegu dama te mu yaqul mu ngi naan mu ngi wax ne solo nii laaj leen ma xanil muxdilaati jiyu lanti wa tawdihu te ngeen leerlu min nii ci man al muskilaati yu lënt yi ku ci lu mu bëgg a na ma laaj ku ci lu mu bëgg xam na ma laaj ku ci am ko lënt na ñëw ma leeralal ko te loolu nii laaj leen ma anil yu jafe yi wa tawdihu te na ngeen leerlu min nii ci man al muskilaati yu lënt yi wala bii giñ naa ci buur bi nga xam ne fatara bind na mu asamaa asamaan maa ngi giñ ci yàlla mi defar asamaan wa allama te mu xamaloon Adama Adama alasmaa turi mbir ya mu xamaloon Adama turi mbir ya malaaka yi xamu doon te mu waxal ko malaaka yi mu naan leen màggal leen ko ndeg hormay xam-xam urjudoo li Adama maa ngi giñ ci yàlla moomu ne inni man la faqiihul yi ndax loolu la ci tegu la faqiihul arabi maay borom xam-xamu arabi al arbaa ñu de way sell ci arab arab yi dëgg dëggal yi tey man lañuy ñuy déglu man maay seen borom xam-xam wa alamu man maay gën te ay ko xam ne taxtal jarba nekk nañ ci ron asamaan tey kuy ronu asamaan maa la dàq fi xadam wa alamu man te maay gën te ay xami xam ne taxtal jarba nekk nañ ci ron asamaan jarbaa aji ràmm lay biri waaye boo gisee arab di wax asamaan jarbaa mooy su fekkee guddi dafa leer biddi wi génn ni muy bëree ci kaw asamaan si dafa mel comme picc ràmm ni muy mel yaram mm. loolu moo tax ñu asamaan jar na mm. te lu baax a baax mu ne fatamada dal di jublu mm. la wa ñaal ko fatan ak gune fatiqul lisaani ku daaji fasaa ci làmmiñ jëriyul janaani ku daaji ku daaji jàmbaar ci xol mu ne xam naa gune koo jàmbaar a nga fa kooka moo ko jublu moo dem déggoo fa samara dal di jublu loxo ñaar abu zaydin fatan ak gune fati xulli daan kuraaji fasaa ci làmmiñ ku hubbeeku làmmiñ jëriyul janaan kuraaji jàmbar ji xol wa qaala mu ne ko inni man haadatu toogaale naa fuqaha adduniya borom xam-xami addina yi at borom xam-xami addina si mm. atan taxaltu ba ma tànn minhum ci ñoom mi ata furiya téeméeri fatwa man duut ci yow laa jëkk a gisee borom yi xam na ay nit ñoo xam ne jaxasoo naa ñoom ànd naa ñoom bokkutoo ak ñoom mm. ba tey maa ngi garde téeméeri farwa mm. yoo xam ne yu wér ci ñooñu laa ko jëlee mm. fayim kunta boo nekkee mi man de ku xam ne yarxabu dana mu sib am banaate xëyrin ci fen wa yarxabu te muy xamee fii mayrin ci xoon na min naa ji nun su fekkee nit ak dëgg nga bëgg fee jëlee njëriñ wa in kunta boo nekkee man de bokk ci ñi nga xam ne yarxabu danañu sib xam banaati xayrin ci fen wa yarxabu te muy xamee fii mayrin ci xool na mooy ci may mi naa ci nun fasta bi am na nga déglu waajib te nga tontu déglu laaj yaa ngi ñëw laaj bu nga tontu ko li tuqaabala ngir ma jàkkaarloo ak yow bi maa ci li nga xam ne jibu dana mu war su boobaa su fekkee tontu nga laaj yi li ngay woote dañ la ko nangul la yàlla ca borom min dañ la ko defal fa qaala góor gi nee ko gune gi nee allahu akbar sa yebin xas lay bir al batin bi lu ñu teg ah. wayan kasi bu xasee wuññeeku. Mm. al mut maru la ñu nangu. Mm. fas daaw góoralal bi maa ci li nga xam too man dem na la ko digal. Mm. Abu Seydin nag waaw mbir yi ci kanam la ne. li la hump incha allah dañ ci xam dara la. allahu akbar. sa yebin xadray bir al maxbaru baatin li nëbbu. waya wayan kasi bu xasee wuññeeku al mut maru lu ñu nangu. fasda na nga toj nel tajax wóoralal bi maa ci li nga xam ne soo ma demee la ko digal léegi nag dañoo topp ponki lislaam yi taxaara ci la ñuy dalee suñu paree dem ci salaatu dem ci siyaam dem ci zaka dooga dem ci mu dem ci haj makka suñu paree dooga dem ci muamala yi ba ngi téeméeri fatwa yoo xam ne benn bu nekk da nga ci gis abu sayd xale bi ne waaw maa taqulu ah bii man ci koo xam ne tawada jàpp na mu summa lamasa topp mu laal ndax du loolu nga ji rek zahra naalihi gannaaw dàllam waaw loo xam nag ci nit ku xam ne dafa ba pare laal gannaaw dàllam loolu moom loo ci xam nag yow mi arab abu zeydin ne ko intaqada fireekoo na wudu woo njàppam bi li fireeku na nga ne ko laal daal nga ne jàppale sol daal la mu ne an naalu mooy azzawja jabar xam nga ne laal ko ci gannaaw jàpp day firi jàpp baat boobu la ñuy jàngale bi xam bi ko xam ñaari maana yu bokkul mm. loolu la ñuy jàngale mm. waaw seen ku baax a baax mm. dégg ko waa fayin tawataa su jàppee na summa at kaawoo tëdduloo ko albardu sedd waaw ki jàpp ba pare liw nag tax mu tëdd nag hmm. kooku moom loo ci xam xaal hmm. abu seydin ne ko yu jëddidu dafay xeesal alwuduwaa njàppam min baadu ci gannaaw loolu bu jógee su bëgg a julli il faut dana jàppan ah. hmm. nga ne bu liw mu ne albardu ak nawmu mooy nelaw xanaa xam nga ne bardu bardu ni muy firee sedd noonu lay firee nelaw te xam nga ki jàpp nelaw bu jógee dafa war a kon baat bi xam nga ko ci ñaari yu bokkul xaal gune gi nee ko ayam sahu ndax dana masa al mutawaddihu aji jàpp unsa yey ni ñaari way yoreem ndax ñàpp mbasul unsa yey ni ci la bokk xaala abu saydin ne ko xat nu di ba xooxeef na ko ilayhi jëm-jëm sopp nañ ko de hmm. waaye na wala yoo jë warale su ko alayhi ci ko kon mu xumb di njàpp ba ci masul unsa yey ni mu ne al unsayaani mooy ñaari nopp mooy al udunaani baat bi xam nga ko ci ñaari maana yu bokkul hmm. al unsayaani mooy al udunaa xaala gune gi nee ko hmm. aye joosu ndax dana dagan al wudu o njàpp mim maa ci loo xam ne yaqtadifoo dana ko sànni asuma baanu jaam hmm. waaw est ce que ndoxam yutiti jaan dagan nay jàppee xaal abu saydin ne ko waal ansaf ndax am na lu gën a set minhu ci loolu lil orbaani ñaal arab yi ana fan ci suufus arab fan nga xam ndox mu gën a laab loolu mu gën a set loolu waaw nga ne xanaa bu dee gàllankoor de koo dee de bu ci sën moo gumbo de loolu ku koy wax mooy de de soobaan mooy fi yoon de de jaar ndox buy dem ci xur fi muy jaar foofu mooy soobaan ndox moomu na ndox mu laaba laaba laaba ak soobaan jamu saafin la wa huwa masilul waadi ndax loolu la mooy yoolu waaye xur xaala ku ne gi nee ko waa ayum tafaaxu ndax na daganal maa u dari ndoxam ah nit ku gumba nga nangu ndoxam jàpp ji ndax loolu mu ngi dagan moom nga ndoxam nga jàpp ji xaala abu ko naam waaw waaye nag wéy kana bu def na teet maa u basir ndoxam kuy jibbe kooku dewa bokkul moom ah loolu de waay loolu mooy la mu ne dariir bu ñu ko waxee mooy xarful waa di pegg ndaw ma caa nekk dara nekku caa mm. basiir mooy alkal bu dawkat mm. xam nga lum laal dëgg dëgg baaxul mm. xaala gune gi ne ko aye joosu ndax dana dagan atasawufu wër kaaba gi fi rabia ci faslu rabia dañoo toll ci fasal boobu ñuy wax rabia ndax heure boobu buñ ci àggee wër kaaba gi dagan naam di qaala abu zaydin ne ko ah loolu nag yuk yukrahu def na si zaaka lil xadasi ngir toj asani bu daal di mu ne ko xam nga dafa silvisé di torop kooku daal dëgg ko ma ne ko bien bu fekkee moom si mool hajji da cee ñëw kon pour nga joxe tawaful ifaada dafa ajote mooy la atasawuf mooy astaxawut dem joxe arrabia mooy annahru saxiir dox tuuti suy dem mm. xàgg ji di faj xaajatul insaani mm. nit da war a mayu mm. ndax loolu mooy atte bi xaala gune gi ne ko ay jibu ndax dana war alxuslu sangu xaala man ci ku xam ne am naa génn na maniyu ndax nit bu maniyu génnee ci war na mu sangu xaala Abu ne ko laa déedéet wala sa naa doonte ñaari yoon la ko def sax sangu du ko war ne ko ah, man nag sëriñ bi loolu moom ci janaaba laa ko xamoon mu ne am naa mooy wàcc na minan la mu ne am naa mooy nazala minan yuqaalu des na wax fii ci moom ne mana ak am naa ak imtana kon ñu jàng loolu ba beneen yoon incha allah daara damay seet léegi ñu ngi nekkoon ci affaire njàpp jàng nañ ko ba màgg affaire sahara léegi duggoon nañu sangu ñi dellu ci wiyaar xaala gune gi nee ko fahal yajibu ndax dana war halal junubi ci aji janaabawu xaslu farwatihi raxas malaan ak céw nga xam ndax du loolu la ah xablu farwatihi raxas malaan ak cénga céwgaam hmm. a ndax nit su fekkee ne dafa janaabawu hmm. malaanam ga nga xam ne mooy malaan ak xamtum hmm. mu nekk ci collu waxandeem la janaaba ji dana laaj mu mu fóotaale ko xaala abu seydi ne ko ajal waaw waxaslu ibrati yi ak raxasaale puusam ñu ne ah malaan ak puusa luñ la janaaba mu ne al farwa mooy jil dë turasi jiddatu rasi dara bopp mm. ibra mooy atmul masbaq yaxu cooy mm. xaala gune gi ko mm. ay jibu ndax dana war xale ci moom xaslu sahifati raxas téeréem waa téere muy jànge war na ko raxasaaleem xaala Abu Sayd ko naam waaw ka xasli safatihi ni ki raxas tuñam rek bañ a raxasaale nga ne ko téere mu ne asahifa asirratul waji mooy ras rase xar kanamam xaala gune gi ne ko waaw fay na bu yàqee moom ki janaabahu bi xasli fasi ci raxas sémmiñam waa léegi nag bu raxasu sémmiñam nag abose xaal abose nag woo moom kaman la wal xaal mu ngi mel ni moo ko wàccoon rek xadra si raxas boppam mu ne ba mu ngi mel ni bu somuhu mu ne al fasu mooy alhas mu ay yàq mooy alhas mu yàq al mudri badaa ji safu ala nuqratil xafa ci sax waaye dox noonu xaala guni gi nee ko mm. ay joosu ndax dana dagan mm. alxuslu sangu mm. fil jiraabi ci biir gafaka dugg ci biir gafaka naan damay sangu ndax loolu dagan na xaala abu seydin ne ko naam waaw huwa moom daal kal xusli mu ngi mel sangu rek fil jibaabi ci biir ndox de jubbu xam nga mooy kàtt kàmb goo am ndox ñu mooy lan mu mooy jaww bul biiri biir teer xaala guni gi nee ko maa taqulu loo wax fii ci koo xam ne tayamama tiim na mu summa raa topp mu ji raw dam toolab dër waa nit koo tiim baa àggal gannaaw tiim mu ji toolab dër ko moom loo ci xam dafa tiim baa àggal ji toolab dër xaala abu zeydi ne ko batala yàqu na tayamumu hoo tiimam fal yatawadda na jàpp dama ne tiimam yàqu na nga ko toolu dër mu ne arawda huna jamu rawdatin la wa hiya asubabatu tabqa fil hawdi mooy ndesi si ndox soo fekk ci mbalka defu kay ndox xaala gune gi ne ko loolu mooy mbiru sangu aye joosu ñi dem ci julli aye joosu ndax dana dagan ayes joda bu su joodat arra julli waaye fil hasirati ci dem joor ndax kuy julli dagan na mu su joot ci dem joor xaala boo seedi na ko naam waaw waaye nag wali janib na mu teet alxadira taa ji seexlu nga ne ko bu ci seexlu wu dat mu ne alxadira mooy binaa wu dat di ngiréef kër kee bu laabee nit mën na jaay julli xaala <coughs> abu saydin ne ko faal la woo ndax ñaan na ko ak sujoodu sujood alal xilaaf yi ci xilaaf leeso lay doon yu ñuy liggéey ci garab guñ naan saf mu ne ko ah ndax kuy julli man na jee sujjóot xaala mm. abu zeydi ne ko laa déeréet nag loolu moom waru koo def de mm. wala du mu sujjóot ala ahadil atraf ci kenn ci mm. nga ne ko waaye loolu dara wu ci mu ne alxilaaf mooy alkumm loxo lugu xam nga dañoo sib ko ci sujjóot xaala abu zeydi ne ko waaw in sajada bu gune gi ko fa in sajada bu sujjóotee ala simalihi ci càmmoyam bu fekkee dafa tourné booru càmmoñ mu sujjoot wala ala simaali yi ci kaw loxo càmmoñam mm. xaala boo seydi ne ko laa baasa yi gis naa lii jëm la dara mm. ñu di wax la tin mm. la xamee làmbaay da ci julli kooku dara newu ci gune gi ne ko faal yi joosu ndax dana dagal ak sujjoodu sujjoot xalal courant yi ci xeel lu mel ni xeela béy nii nga sujjoot ci loolu xaala Abu Zayd ne ko naam waaw doona dira walis xasabu xasabu nag duñ ci duñ jot nga ne ko loolu mooy lan mu ne alquran mooy domoom alquran maa mooy lu xam ne istataala yëkkateeku na mu minal xarra xarra mooy suuf soo xam ne dafa am ay doj yu ñuul waaye ardun saatu hijaaratin soori xaala gune gi ne ko ayu salli ndax wala ayu salla lum daw ayu salli ayu solli ndax dana julli moom ki bëgg a julli hmm. ala rasil kalbi ci boppam dawkat hmm. ndax boppam dawkat lin mën na jee sujjo hmm. lin mën na jee taxaw wala sujjo de julli xaala boo seydi ne ko naam ka sayiri naat bi ni ngi defi di yeneen doj rek nga ne rasul kalbi mu ne rasul kalbi solliyatun doj la wala domo la maarufa jëre ji ñu xaala gune gi ne ko hmm. aye joosu ndax dana dagan li daari si ñaal ku de jàng hmm. xamlul masaahib yor ay kaamil hmm. waaw kuy jàng moom mën yor kaamilam xaala abu zeyd na ko laa diri nag wala xamluha du càggeen xenu fil malaahib bi ci tax ci laxasu kayam yi même mor soom sax du ko ngëb ma ne ko ah moom nag kii jàng mu ne ad daaris mooy alxayidu ko xame xayid baax na ko ah, léegi ñu ngi nekkoon ci salaatu jimaatu yi hmm. mu ne ko ayu salli ndax dana julli ala rasil kalbi ci boppam dawkat ndax nit mën na cee taxaw di julli wala nga di julli boppam dawkat hmm. qaala faqiihu bi ne ko naam waaw kooku mënu na hmm. kasaayiril xar bi ni ki si di doj rek mu ngi mel yeneen doj rek ma ne ko daw kas soxla la daw kas ku ne julli kon ana laa bu xabas man mu rasul kal bi saniyatul daj la maaruf wa dem ñu xam dañ ñu ko déglu xaala gune gi ne ko ay joosu naa dana dagan li taari fi ñaar aji jàng xamlul masaayib bi yore ay kaamil enu kaamil ndax kuy jàng dagal na mu xamee kaamil loolu la ko wax qaala faqihul arabi ne ko laa diire de wala hamluha du jàggeen xenu fil malaahi bi ci yiñ ko lax même buñ ko laxasee ci malaan sax war daa amee malaan dañ ko lax ah jàngkat yi dañu am tool yi ci ma dem ñu ko ba mu ne addaari mooy alxaayit aji xayit qaala gune gi ne ko waaw maa taqulu loo wax ne fii man ki ko xam ne salla julli na mu hmm. waxaana too te naqam bi bari sa doon aji génn la hmm. waaw kuy julli te naqam dafay nag hmm. ah koomu loo ca xam qaala Abu Zayd ne ko salaatuhu jullim de jaay sa doon aji wér loolu jar dagg ñu ne wér nga ne ko ji déedéet xam ah nga bu feeñee kay loolu baaxut mu ne alhaanatu mooy aljamaa min humuril wasi mooy xam mbag mbaa mi mu ngi ay mbaam bi lu jotoon julli sax xaala gune gi ne ko waaw fa in salla bu jullee wa alayhi te war na ko sawbun koor waaw ki julli taame borom koor nag kooku mu loo ca xam xaala abu seydi ne ko yuheen du dafay baamu de baamu lay def wala salla donte julli na mu ngaata yow in téeméeri fan baamu lay def nga ne ko koor lu boppam la waa ji julli lu boppam la yaa ngi julli ame bodu koor mooy asawmu dara ko ne am mooy xayiti ba mooy doxantu yi ba xam lu sobe la mm. mm. muñu ko julli aat xaala mm. gune gi ne ko bu in xamala bu yenoo jir wan xalaf mooy doomi dawkat wasalla mu julli waaw ki tuum moom xalaf si dawkat di julli moom loo ci xam qaala Abu Zayd ne huwa loolu di ah kama la xamala mu ngi mel ni moom mooy noonu rek baaxil la gàncax gu ñëwee baaxil la loolu kooku dara ñëwul ci jotewul la mu ne ko jiru sobe la waaji mu ne de ajiru mooy al astixaar min al qissa wa rumma gàncax gu ñu qissa ak rumma yow dawee dañ ko wax jiru qaala gune gi ne ko atasihu ndax dana wér salaatu haamilil julli aji henu xarwa mm. xarwa feebar rey do jilit mm. mooy udra mm. te du xam nga udra udra mooy intifaaxul unsa yi mooy li wax di wax xuxaan mais mooy udra dégg nga ajul aada udra mu ne ko ah ndax loolu moom ku ku ku ko yore dana julli ku ko yore bu jullee dana wér xaala boo sëy ne ko laa déedéet déedéet walaw salla doonte julli na faw xal marwati ca kaw doju mara fu mën a julli amul julli ma ne ko a jàngoro na de buy buy dara julli weer hmm. mu ne alxarwa may la xatir kalbi may xabari daw xaala hmm. gune gi ne ko waa fayin fasara borotee nag xala hmm. sabil musalli ci malaanam kii julli najwun sobe su sobe dafa dal ci malaanam kuy julli mooy lu génne ci biir qaala abu zaydin ne ko faqirul arabi ne ko hmm. yam de na wéer fi salaati ci jullim hmm. wala xarwata dit kema newu ji hmm. ane ko sobela loo génne ci bit wa al najmu asahab alladi qad raqamahu mooy najmu mooy xiim xiim taw ba tagati te topp benn benn ndox moom mooy najmu qaala gune gi ne ko ay joosu ndax dana dagal ay umma bu jiite hat arrijaala góor ñi muqannawoon kuñ defal muuraay ku di muuru dara mën a julli ndax mën naa jiite góor xaala boo seen ne ko naa waaw wayu mu mën na leen a jiite sax mu dara woon borom bu ko ku sol biroon sax la nekk de jigéen mën na jiite góor waaye mu ne al muqanna mooy allah bi sul meqfar foofa doo jiree xare mm-hmm. wala mu dara woon laa bi sul dere mooy ko am pakk ci xare xaala gune gi ne ko waaw ah, fa in amahum bu jiitee ñi nag hmm. man ko xam ne fii yadihi nekk nañ ci loxo waqafun waqaf la waaw koo xamee alal bu bursi da ko seere hmm. ko bu jiitee nit ñi loo ci xam hmm. xaala Abu Sayd nag yooyu doon danañ baamu de wala annahum doon dañu alfun junne de ku mooy jiite suñ de junnee maamu mi def de ñëpp ne ko ah moom de de mooy alwaqfu ay ay lam la. Hmm. alwaqfu aswaar yi mooy ay lam. Hmm. min alhaaji awi subli ay maddala yu ñuy defaree lam. Hmm. wa araada annahu la yajuuzu lirrijaal al ihtimaamu bin nisaa. jigéen ma door a jigéen. góor ma door a jigéen. gune gi ne ko. waaw fa in amahum bu jiitee nit ñi nag. man koo xam ne faxduhu luppam. baadiyatun aji feeñ la. waaye limaan ji lupp bi génn nag. kon loo ca xam. xaala Abu Zayd ne ko salaatu woo jullim daal hmm. wa salaatu ak seen julli ñoom yëpp rek hmm. maa bi yëpp naa jógee dafa kaa julli ko dara ne wala hmm. ne waaye fox sama wala mu ne al fox mooy avancir ak gaño bokk baadiyatu mooy dëkk ca àll ba yaskunuuna al badwa waxtaara baadu ahli lugati taskin al min hadi al fax ñoom ne buy ay gaño foxsu la ñuy wax dégg nga li yasul al farqa baynaha farqu baynaha waaye xawt buy lu ñu ne faxi xaala gune gi ne ko mm. fayin amma hum bu leen jiitee na asawru nag mm. ala jëmm bu daa ji njukk mm. waa léegi na waxuma na waxuma bija nag bu jiitee kooku loo ca xam xaala boo seeri ne waa ji solli julli rek waxala ke yàlla na sori la dam mën ngaa ñi loolu kay julli rek xamul wax nga ne ko ba ci julleem nagit ba ci julleem <laughs> mu ne asawru mooy asayi sang ala jëmm mooy alladi laa rum xamaabu ko amul ko amul ko amul gundo xaala gune ko hmm. waaw ayadu xulu ndax dana tàbbi alqasru wàññi hmm. fii salaati saahidi ci julli aji seede hmm. dañoo tukki am problème bu ñuy réglé ji ci tukki bi yow nga bokk ci ñuy bu julli jotee nit ñi de wàññi ndax dañ ngay wàññi xaala boo ko laa déedéet nag wal xaayi bi giñ ko ci yàlla mi daa ji fàttu ndax kenn mënu koo xam ab saahidi ko daa ji teew ndax dara ngi dugg ma ne ko ah loolu de mm-hmm. mu ne salaatu shahid mooy salaatu maghrib mm-hmm. wa summiyat bi zalika li iqamatiha hina tulu'i najmi mm-hmm. jamono bi ñu koy jullee day fekk guddi gi di tàmbalee sa xëre génn li anna najma yusamma shahida ndax bi dañ ko wax shahid ñu dem ci koor xaala gune gi ne ko ay joos ndax dana dagan lin ma dóori ñaal ku ñu ngàntal an yuftira ba mu dagat fii soo ramadaan ci weeru koor waaw weeru koor bu jotee ku amul ngant ku am ngant xëy na ñàkk maanaam xaala bu sëy ne ko maaru xeesa yooloo mbalee sut bi ci dagg illa li si bañ lore ñaan bu nii ne ko ah bu dul bi nag dagg de nga ne ko waa ji ngant buñ ko koor war a tax ah maga tax ay gune di war warante ko ci mu ne de almaxdur mooy almaxdur julli mm-hmm. waaye daan almuxtaar mm-hmm. bu ma tey mu kallaf rek war a xool xaale gune gi ne ko mm-hmm. faalil muharrisi ndax ñaan na aji céetale e yàggu la ba mu lekkat fii ci weeru koor gannaaw ya fa nga am céet ndax mën nga cee lekk xaala Abu Zayd ne ko naam waaw waaw bi midi fii ci fees ak nga ko ba gémmiñ gi fees laa man na ko <laughs> ne ko ah eh, néew la wax mu ne almuharris mooy koo xam ne day dox ba guddi dee waaj a jeex hmm. mu tëdd dina ko lu tuuti hmm. almuharris hmm. almusafir alladi yansilu fi axiri laylihi li yastariha summa yartahila waxtu waaw guddi la ma nekk na jàlleg gune gi ko fa in aftara bu daggee fii ci weeru koor almoratu weerable yi waaw koo bëri wuri rek moom waaw weeru koor bu ñu warut loo ci xam xaala Abu Seydi ne ko laa tunkiru du di nga daal leen ci ñoom. Hmm. alwulaatu kilifa yi kooku buur amul ci lu mu doon. Hmm. <laughs> nga ne ko ah loolu yële te mu leen. yële kay xanaa fi mu jëlee tale moo ci julli kay soxna su hmm. mu ne alxoraatu mooy ko xam ne xob si tàngoor. alladina taxusuhum al-arwa. way alxumma bi dégg nga xaala gune gi ne ko ah fayin akala bu lekkee na asaayimu aji war ma dama asbaa ci gannaaw xaala Abu Seyni nag huwa loolu de ahwatu moo gën a limtu la wax la te moo gën a yore di jàng loolu asbaha mooy taxal na lam mu ne bu njëkk la mooy limu jàng asbaha mooy taxal na lam ay istasbaha bil misbah xaala ku ne gi ne ko aduñaa daf yi tegaloo fa in xamada bu tayee moom aji xool li an akala ci lekkam laylan ci guddi na waaw yow nga xam ne lekk guddi loo ñu qaala Goudiri ne ko ah lii samir na ma wax saylan la fi lil qadaa yi fay makkal fay. ma ne ko ah ma ne ko xëy na ku bëccëg bu nekk guddi. ah li loo xamoon. ma ne léegi rab la. wala ki ci weeru koor war naa fay. zakara ibnu duraydin anna layla farqulu baara wa qaala xayruhu waladul karwa ne ko. eh fay naa ma de bu jubloo moom ki xoor. li an akala ci bu mu lekkat lay lan ci guddi ci lekkam lay lan ci guddi waaw koor moom bu lekkee guddi loo ci xam qaala abu saydi ko luyu li yu sammir na mu wax saylan lafi lil qadayi ngir fay bakkan fay nga ne ko dee koor déggu war a lekk bëccëg kon koor bu lekkut guddi heure bu mooy lekk mooy laylu rab la sakara ibnu duraydin anna layla farqul hubaara cuuju rabu ñi picc mu ñu naan xubaara la wa qaala xayruhu huwa waladul karawa qaala gune gi ne ko fa in akala bu lekkee moom ki qabla an tatawaara ca njëkk bu hiiru rek albayda aji weex mooy jigéen ju rafet rafet ci misaal sell bu baax a baax dégg nga waaw nit ko war ji ci jigéen la ko wute kum hmm. Abu Saydin ne ko hmm. yalzam woo dana ko war wallahi alqadar bay hmm. lay def ñee diir waa ji yow li nga lekk jigéen na la koy jox moo ko liggéeyee nag nga jox bay lekk day jiitu mu ne albayda min asmaa'i shamsi ci turu jant bi la xaala Abu Saydin ne ko fa ini tasaara bu jeexee asaimu aji woor alkayda mer koo war moom bu meree loo ci xam mm. abu saydi ne aftara dagg na kooram nga yàqu de mm. waman giñ naa ko ci buur bi nga ne ahalla daganal na mu saydan ak saydara mm. mu ne koor neatu ko nga ne ko mu ne alkaydu mooy alkay u wëcc ittasaaroo mooy ittataawu sàkku na ko mooy looju na gune gi dal di abu saydi ne alla woo ndax ñaan na aji xoor an yuftira ba mu daggee hat bi ilhaahi taabixi ci sonn leeg aji togg toggkat bi moo la togg mosal li ma togg lekkal li ma togg lekkal ci li ma togg loolu war naa tax nga mën a dagg qaala abu seyd ne ko naam waaw laa bi taahil ma taabixi waxuñ nag ci kii toggee ci wàññi de ma ne gaa loolu de xaaj mooy attaabex mooy alxumma asaalib mm. mooy tàngooru yaram feebar mm. xaala gune gi ko a fa in dahikat bu almaratu jigéen fii saw mi a ci kooram mm. moom dafa war ba ca kanam mu mu ne ko batna la na saw mu a xoor bisam bële mu ne ko day yàq koor mu ne dahikat haahuna mooy xaadat bërëg na wa minhu qawluhu taala fa dahikat fa basharnaha bi isaaq xaala gune gi ko fa in zahara bu xob bu feeñee aljudari yu hopp si njàmbal ala darratiha ci wujjëm moom mu ngi xoor wujjëm feebar kooku loo ca xam xaala boo seeri ne ko tub siru dafay dagg boobu bi madarati ay ci lor bu jëm ah, wuj bi naa lor mu rek ne na feebar yi di dagg mu ne déedéet dara mooy aslul ifham fi di sax wa aslu ak wendi sax ala kulli haal feebar la bu garaaw bu feeñ ci yaram suñ ko mën a boole doxoor dañuy dagg ko léegi pare nañ ci hmm. woor ñu ci asaka hmm. gune gi ne ko may jibu lu war fii mi ati mis bàyyi ji téeméeri lam hmm. téeméeri lam mu kon loo ñaaw xaala bu seydina bi xiqataani ñaari xiq yaa sax ya sama àndandoo waaw bu ñu ko asagalee gilimam mu ne almisbaax annaqatu allati tusbihu fil mabraki mooy gilam gi nga xam ne ba dana ko setee ci góoru waay bi xaala gune gi ne ko a fayin malaka su moomee xasratan ajira fukki paagan a fukki paaga moom ko am xunjur wala xunjur xaala boo seerin ne ko yuxri ne paaga mu ne alxanaajir mooy annuuqu alxisaari dërri gëlëm yu bëri sax mm-hmm. waahidatuha xunjur wa xunjur xaala gune gi ne ko fa in samaha mm-hmm. bu tabee li tàngee ñaar aji rambaaje mm-hmm. bi xamimati yi ci dara mbokkam kii rambaajkat la day toxal wax ci xanam ak yàq dikk loo xam ci sa mbokk mi nga waxal ko ko loolu bu ko ni demee loo xaala Abu Sari ne ko yaa Busra woona mbégte la woo ñaal ko yow ma xiyaamati keroog bisu dekki mu ne yaakaar naa bu péncee dana xam ne lu baax sa kannaan rek li ko mu ne asaaye mooy ndawal buur lii jël xafeka xamima mooy xiyaarul maali tànne si alal asaaye mooy jaabi sadaqa ndawal buur lii jël xafeka wa xamimatu xiyaarul xaala gune gi ne ko ayastahiqu ndax dana xeeyoo xamalatul awsaari wéy xenu bàkkaar yi juzan xaaj mina zakati jaar ñoo bon ñi xenu bàkkaar ndax ñun dañ leen jox affaire xaala abu seydi ne ko naam isa kano bu ñu nekkee xusan de wéy xeex su fekkee ma ñu jaar nga ne ko déet waa ko xenu bàkkaar mu ne al awsaar mooy asilah ay gànnaay muxsan jëm muxasin la loolu mooy asaka ñu dem jaay mag xaala gune gi ne ko aye joosu ndax dana dagat ji ñaar ay yaxtamira ba mu xomra haaj màkka ba pare teg ci xomra dagat na xanaa mooy la nga xamoon muy ifraat de xaala boo seen na ko laa diri daganul de wala yaxtamira du caageen muy muuru kàmburu de xam nañ ko waaye xam mu ne alihtimaam libsul himaarati mooy sol kaala way alhimaamatu wal ihtimaam libsul himaar mooy oddoo mu rey xaala gune gi ko faxal la woo ndax ñeexal na kuy haj ay yaqatu la ba mu reyaat asu jaaha nit koo jàppaar xam ah, mën ne ko naam waaw kama yaqatu ni ki mu reye asibaa menti comme ni mu reye ndeg ment da Mm. mu mm. ne asu jaam mu alhayatu jaam gune gi ko a fayin xatala moom kii haj mm. sammaaratan warkatu sërimba jigéen ji wal sëlimba fil harami ci wurum ji nit kuy wal sëlimba la fekk ci wurum ji daal de ko rey ci xam xaala abu saydi ne alayhi war ko badanatun gëlem ak badana mooy gëlem gën ci gëlem yi mais naa mi ci jurika nga ne xanaa ah, nit kay bu waree buñ waxu fayu iddiya la ñu ak mm. gën a gën a badal mu ne asamaara annahaamu mooy baa mm. annahaamatu mooy baa mm. was mu sawtiha asuma xaala gune gi ne ko a ah, fayin rama bu sànnee moom kii haj saaka hurrin peerab gor fa jaddalahu mu nërmal ko ak gor la sànni dagg tànkam kooka daanu dee ko buloo sa xam xaala Abu Sayd ne ko yuxriju dana mu génne saatan gàtt badala wa ci wata mu ne gàtt lay génne nga ne ko mooy saako saako wurin mooy zakarul ximaar yi góor la bu baax na ñu waajal waxtu moom nit ki ki harmal umma haw bin ummu haw mel ni jigéen joo xam ne fa am doom ji ñuy wax xawku mm. moom la rey bandal ihram yi ci gannaaw harmal mm. qaala abu zaydin ne ko ah, yatasaddaqu dana mu saraxe bi qubdatin ci benn somp bank mm. min taamin ci ñam loxob loxob ñam lay joxe loxob ci ñam ba fee lay joxe nga ne ko doom aadama ummu haw mu ne ummu haw al jaradatu muy njëréer qaala gune gi ko aye jibu ndax dana war xalal mm. xaaj ji ci aji xaj mm. istisaabul xaare bi àndaale gaal mm-hmm. ndax kuy xaj di du muy xaj na di yore gaal heure bu nekk mm. gaal nag barabu ndox ci lañ ko soxla qaala abu ne ko naam waaw loolu moom dana ca baax li mu màng leen ilal masaari bi jëm ci naanu te loolu ne woon mu ne alqaarib mooy kuy rooti guddi taalikul maa i bil layli mm-hmm. am mbooloo bu ñu àndee mm-hmm. ku leen di dimbale ci ndox dana ca baax mm-hmm. xaala gune gi nee ko maa taqoolu loo wax ne fil xaraami ca la xaraamoon banda sabti ci gannaaw afet moom di xaraam na ca alxames yeeg àjjuma ji afet ci dikk bi loo ca xam xanaa Abu Seydi ne ko xanaa la dagan na fii zaalikal waxtu ca wala wax. mu mm-hmm. ngi gën a affaire bi rek dagan mm-hmm. ñu ne waa ji loolu neexoo sax xam mu ne de xaraam mooy nit ku xarmal. Mm-hmm. sabtu mooy watu. xalla mooy xewee kon. alxaraam almuhrim. wa sabtu xalqu rasi. wa xalla min tahlil al hajj. su ko defee ci dem ci bu Hmm. xaala gune gi ne ko hmm. maa taqulu loo wax fi bàyyeen ku may di ci jaay fasu jàkkeer jaay hmm. loo wax ci jaay fasu jàkkeer xaala Abu Zayd ne loo xaram la ka bàyyeen may ni ki jaay fii waa ji fas fas rek la di dagan naa jaay mu ne al kumaytu mooy al xamru sànga baaxut a jaay inna la fi xaram bay xaala gune gi ne ko aye joosu ndax dana dagat bayamal xëlli jaayee beneegar bi laxmel jëmali ci yàppu gilem ndax beneegar ak yàppu gilem dagan nañuy weccelante xaala abu seyd ne ko daganut wala bi laxmel xamal du caageen yàpp mburtu beneegar ak yàpp nga ne ko déet moom nag ñaari la xanaa kay dig lañ caa waaye wàccoo gi moom xel ci war laaj mu ne alxallu mooy ibnul maxaali ah gëlëm ma góor gi am xat hmm. boobu nga dugg ci xatam ñaareel hmm. mooy ibnul maxaali hmm. wala yaxillu bayul laxmi bil xayawaan weccalante yàppam luy dund nag daganul sawaun kaana min jinsi yi aw min xayri jinsi yi xaala gune gi nee ko hmm. ay hillu ndax dana dagan hmm. bay on hadiyati hmm. jaay hadiya mooy luñ la may ndax ko may dagan na mu jaay ko xaala abu zayd ne wala bay on sabiyati du jaageen jaay ko jàpp mu ngi mel ni jàmm ba nga jàppe ci xéefar ya doo ko jaay ma maa yuuda ilal kaabati hmm. mooy loo xam ne dañ koy indi hadiyay kaaba gi la hmm. wa yuqaalu fiha hadiya hmm. bi taskini daal wa taxfifil yaa sabiya mooy alxamru sànq xaala gune gi ne ko maa taqoolu loo wax fii bayal xaqiqati ci jaay kënt wala Abu Sayyid ne ko Mansour lu ñu xaraamal mm-hmm. a ah, xaqiqa bi ci dëgg la ko duñ ko de jaay de nga ne ko a ah, kawar mm-hmm. mu ne xaqiqa mooy gàttal ngénte duñ ko de jaay al xaqiqatu ma yusbahu anil mawludi mm-hmm. fi lyawmi saabi'i min wiladatihi xaala gune gi ne ko aye joosu ndax dana dagan bayoon daaxee jaay aji hoote te lu baax a baax ala raaxee ci aji sàmm xaala boo seen ne ko laa déedéet wala ala saxin du caageen aji dox nga ne ko dégg lu mel ne gëlëm wala gàtt buy dox nii rek da ware yeneen du jaay jaay nga war daay mu ne déedéet addaaye mooy baqiyatul labani fi daraay wasaaye jaabi sadaqa lii gëlëm la wala gàtt la yaa ngi koy joxe asaka rattoon nga ko xenaat bi xam lu ñu def doo wax ne gàtt bi ngay joxe soofi ci def xaala gune gi ne ko mm. ayu baaxoon ndax def na jaayee asaqaru jaage piccam jaage mm. bi tamri mm. gu xaala gune gi ne ko ayastari yi ndax dana jànd mm-hmm. al muslimu jullit mm-hmm. salabal muslimaati rekki di jullit yu jigéen mm-hmm. jullit bu jigéen boo xam ne dañ ko ay futti yi de ndax yow mi jullit mën nga koy jànd jullit bu jigéen la ay yëf la rey ko futti ko jël lam yore wa xaala boo seen ne ko naam man na ko jaay de jënd de wayu rasu dem na ko doon na am wëlil jël fa bu dee alalam dañ koy doon ñu ne ak salaf mooy liha ussajari mm. ku biti garab mm. lu mel ni garab yi mm. jigéen na ko moom bëgg na ko ku biti am na mu ngi ko jaay am nga ci soxla mu jaay la boo ba tey xawsu samaam doo xubbitu gàncaxu samaam wala boo xobu samaam dégg nga xaala gune gi ne ko faari joosu ndax dana dagal ayub temps bu jëndee fat assafion aji tim hmm. jënd ko lay tim xaala hmm. Abu Seydi ne ko mali jawa si ñaalu dagana min dafeen jënd aji jënde hmm. en man da temu dagana ñene assafion assaatu allati yadduha soxluwa mooy gàttal lu dum topp xaala gune gi ne ko ayuba ma ndax dem na jaay al ibriq mooy baraada ndab li nga xam rek ala banin axfarin jubanul asfar ndax nit mën na leen a jaay jumtukaay boobu hmm. xaala boo ne bu yukrahu dem na ko sib de hmm. ka bañeen mex fari niñ niñ sibee jaay leen mex far hmm. al ibriq mooy asay bu saqiir jaasi ji ñu fonk al kasirul maa ju bëri dox banul asfar mooy dañoo mënoon a xare te bëriwuñ woon jullit ñu daan sib jaay leen gànnaay loolu la fekk baax na boobu tuuti moo des rek ñu njàng topp la ci la kii maanaam tuuti des ci njaay tuuti des dégg xaala gune ko aye joosu ndax dana dagan aye bi ha bu jaaya arrajulu waay say fii yow xaalali cooroonam wala gëlëm gëlëm ak cooroonam ndax man na koo jaay gëlëmam gi juddu cooroon xaala boo seedi na ko laa déedéet wala kin li fi nekkee li yóbbu sa fi yow xaritam jaay xarit mu ne asay fiyu al waladu alal kibari mooy doom ji nga fekk booba mag nga fiyu an naaqatu al xasirata sa fiyu mooy gënam gu bëri soow benn moo ci def xaala gune gi ne ko fa inistara bu jëndee xam dan jaam fa baana bir bi ummi yaraawun ay jam-jam hmm. yow fañ la jaay jam bi nga fekk ci yaay jam bi nga jënd ay gaañu gaañu hmm. kooku loo ci xam hmm. xaala bu seydi ne ko maa fi raddi yi nekkul ci delloo am min junaayin benn bakkaat dara newu ca <laughs> xanaa ki nga jënd kay ci ngay fekk ay waaye léegi jeexal nañ ci bouillon ñu ci souvent ci nisaabul maali yi ci lañ nekk xaala gi nee ko a tasbutu ndax dana sax a li sariki ñaar aji bokk fi saara yi ci àll koo bokk suuf ci àll mu jaay wàll ndax yow da nga mën a dab xaala aboo ko laa diirit nag wala du moom dab li shariki ñaar aji bokk fi safra ci xaalis ak nga ne ko déedéet safra musaa ndax musaa mooy al ardu aw mattasala biha hmm. kon kay kooku sufa war na cee mën a hmm. mu ne déedéet as safra mooy al ataan mbam mu jigéen hmm. allati moo xam ne yu masiju dana jaxasante dana jaxasoo bayaataha weexam xubratun wa safra mooy annaqa xaala gune gi ne ko hmm. aye hillu ndax dana dagan hmm. ayuma bu tàggalee fat hmm. maawul biiri ndoxam teer wal wal xalaa ak xàll mm. mooy fu dara bala suuf ya waa ndoxam teen moom mm. wala ndox mu jëlee ci digg xàll ba dagan nay tàngalam mm. xaalaa boo seeni ne in kaana buñ nekkee ñoom ñaar de fil falaa ci xàll bi gannaaw ci xàll bala de falaa du dagan a tàngal bu seddee mën na ko jëlee mu ne yow maa mooy def bu teree fa yow maa mooy yum na woo wal xalaa al këlawu mooy boobu waaw hmm. ah, ndox moo nekk ci xàll hmm. ñax sax wër ko hmm. mu nekk biirul marché ñëpp bokk ko yow xamoo sañ sañ xaaye ndoxam nekk sembal badolo xamoo sañ sañ xaaye ñax xaala gune gi ne ko waaw maa taqoolu loo wax nag fii miitatil kaafiri ci mbir dem xiifar xiifar boo dee moom loo ca xam xaala Abu Zaydin na ko hillun aji dagana lekk la de lil muqimi ñaal aji sax wal aji tukki moom waaye dagan ngim dagan tënkuñ ko ci lor sax de de nit nit mu ne alkafir mooy albahru mooy géej wa miitatuhu assamaku taafi fawqa maa'ihi mooy jën mi daw ci kaw ndox mi xaala ku ne gi ne ko ay juusu ndax dana dagan ay yu daxaa bu ba bil hóori ci yu jénn borom bëri yu jénn xam ne sikk la na tëbas xaala abu seydi ne ko huwa boobu ay dëru moo gën a xeewa bil xabooli ci man boo naa bu bu bu mu ëpp yaakaar rek nga ne ko da xam mu ne hóor jamoo illa du jamooy ahwal xaayil mooy bu jaasir bu amul doom buy tabaskee jigéen rek bu amul doom moo ko suur ma sa loolu ma sa dégg xaala gune gi ne ko faal yu taxaa ndax dem na tabaskee bi taalixe ci jigéen juñ fase ndax mën na tabaski xaala boo sey ne ko naam waaw wayu xaraa dem na ganale ménage moom attaare xaaji fëgg même sax ne ko ah loolu neexoon a xam mu ne attaalix annaaqatu tursalu taraa haysu saar mooy gëlëm gi ñu bàyyi rek muy dox bu ko neex rek balal ko noonu rek bu ko neex rek xaala gune gi ne ko fayin ndaxaa bu tëbaskee moom nit xabala zuhuril xasaalati ca njëkk feeñ ak koj biir nit koo tabaski te gisut koj biir kooku loo ca xam xaala boo sëri na ga saatu la min gàttab yàpp gaa ko bari yaa ko mane ah loolu nag réer dana métti mu ne alxasaala mooy asamsu jant bi parce que guddi duñ ci rey te bët tel tel a da nga ne ba jant bi fenk mu ne qaala baaduhum yuqaal taluhat alxasaala buy fenk nga koy wax wala yuqaalu xarubat wati duhaa safaanu xasaala mooy aljawna yusamma def na ko tuddee bi haa ci jaww na bi haa inda maxibi haa fa jamono yi soo am moom jant bi li am na ak ngir naka jant bi tas wontu dafay mel ni lu ñuul ina taxi waxtu muy fàddu kama xaala sayen tubaadiru jaw nata an taxiba tubaadiru na mu jëkkalante ak jaw nata bi an taxiba ngir ak mu sax xaala gune gi ay illu ndax dana dagan ataka subu fàggoo bi tarki ci fët fët kënt ah lu mel ni hic ci xamee kënt di ko dóor façon liggéey dagan na lekkee xalal ay jus ndax dana dagan ataka subu fàggoo bi tarki ci fët kënt ndax mu ngi daganam bi dégg nga mooy génne ko yu mel noonu ba mu nooy ak yooyu ko jaay xaala Abu Seyri nag wu loolu kal ximaari karta la loolu karta la dagarut bila farxin ji dudul tàggale nga ne ko dee loolu neexut a xam mu ne a tarxu mooy a darbu bil hasa mm. wa huwa xaala gune gi ne ko ayu sallimu ndax dana nayu hmm. alqaayimu aji taxaw xalal qaayidi ci aji jékki hmm. ku taxaw ndax war naa nayu ko jékki xaala hmm. Abu Sayd ne ko mahzurun lu ñu tere la fi ma baynal abaayidi ci diggante jàmbur ko buñ bokku dara la ko ah, loolu neexut a xam ah, romb ko sax ñu ne doo ko nayu mu ne alqaayet allati qahadat hanil haydi mooy ndaw soo toog gisul haydu aw hanil azwaji walla gisul jëkkër xaala gune gi nee ko ayanaamu ndax dana nelaw alxaqilu aje xelu tahtal raqihi ci ron dox kii ab dox la xandu da xelam moo la ëpp doole xànd ak kattanam nga dikk ba ci peggam nelaw ndax loolu nit na ko def ndax loolu na ko xaala Abu Zayd ko ah bi fi mun a soppu bii loolu fil baqin ci suufas baqin mu ne ko ah buy baqin asa baax mu ne ar raqin mooy asama wa asamaan waxaana bil baqin baqin wal madinati baqin madina mooy seen sëg yooyu xaala gune gi ne ko ayum na xoo ndax dem na tere asimmi yu xéefar bu bokk ci ahlu simma min xadlil xajoos yi ci rey xemeem bokk ci ahlu simma su bëggee rey magaram jigéen dañ ko xaye xaala abu seydin ne ko mu aaradatuhoo gaarlanteeg moom dinaa joosi ci màggat dee laata joosu lu dagan abu seydin xam naa seet ko ci bët ko baaxul ne ko rey la ñuy laaj ci nga naan seet ko ci bët baaxul mu ne alxajoos mooy alxamru sàngara waqat luhaa mat juhaa mooy jaxase moom gannaaw kii bët mu ngi naan sàngara hmm. ah yow mii julli waru la jaay waru aye joosu ndax dana dagan ayanta xila bu toxalu xat arrajuluwaay ci xemaar ak bàyyam ci kër bàyyam hmm. wala tooli bàyyam hmm. su soo xam ne bàyyam a ko mosoon a moom ndax dagan na xaala Abu Seydi ne ko maa jubi sa daganale pour loolu de nga xaamele ñaar aji fay koo siiwali wala na bi du caagin koo siiw mu ne ko ah loolu moom xanaa kon àddina bi ñëppay bokk buñ dëkk mu ne déedéet alhemaara alxabila ni góoru de xaala gune gi ne ko hmm. waaw maa taqulu loo wax nag fi tahawudi ci yahuudu dugg ci dina yahud ko moom la ñu xam hmm. xaala Abu Zayd ne huwa tahawud mi hmm. taxu tasawudi mooy caabi dëddu hadis mu ne ko loolu ku bëgg a dëddu hadis dina ko def nga ne ko waa ji de loolu ne wada xam mu ne attahawud mooy attawbatu tuub ku bëgg a dëddu hadis ne dana ko def wa minhu qawluhu taala inna huduna ilayk xaala gune gi nee ko buñ jàngee bi ñu bàyyi ba suba maa taqoolu la wax fii sabrin ba liyeeti ci muñ ne ki musiba na ko mu muñ loolu loo ca xam xaala Abu Zayd ne ko asim xéemu nag màgg bihi loolu min xatiyatin ci bàkkaar loolu aka bon ni ko addi waaji loolu aka bon mu ne de al asabru mooy alhabsu tëxee loolu lay firi albaliya annaqatu tuhbasu henda qabri sahibiha fala tusqa wala tu'lab ila tamuta arabi dañ daan def bu ni dee buñ ko robee dañuy jël benn gëlëm dal de ko daajal ci pegg bàmmeel bi dal de ko fa xeew fa xeewee duñ ko nandalati duñ ko joxati lekk fa ba dee ñu ne bis pénc bu dekki jotee borom bàmmeel bi bu dekki hmm. ñu dekkal gileem mu mën cee waat dem hmm. xëy ji bam soxla hmm. gileem boobu mooy lu mu jàpp loolu ci muxtalafaatul arab la bokkoon mooy arab nangu euh, dina nangu ko wa kaanat al jaahiliya tazumu anna saahibaha yusalu qaala gune gi ne ko waaw ma taqulu loo wax nag fi sabril baliyati ci muñ musiba mm. waaw nit ki musiba dal na ko muy muñ kooku loo ci xam mm. bu ko defee qaala faqihun arabi ne ko mm. azim xéemu nag màgg bihi moom min xatiyatin ci ñaawteef mu ne ko loolu ak a bon ak a bon nga ne ko muñe de bon mu ne asabru mooy alxabsu tëye albadiyatu annaqatu mooy gëlëm tox ba su inda qabri sahibiha wala tusqa wala tuxlafu illa an tamuuta wa kanat aljahiliyatu tasum anna sahibaha yusar alayha arab yi dañ daan def bu nit dee suñu ko suule dañoo jël gëlëm xeew ko ba mu dëgër ci bàmmeel bi duñ ko joxaate lekk duñ ko joxaate ndox fala nekk de xiw damar ba dee pour ñu ne bu fi feeñ ci jotee waa ji ko dekkale dekkal gëlëm gi ci lay mën a war di dem fañ ko war a soxlaa ci hôtel hmm. loolu mooy baliya loolu nag baaxul hmm. xaala gune gi ko hmm. ay xillu ndax dana dagaan dar bu safiri dóor ndaw koo xam ne fañ ko yónni ci diggante muy fa dox doxal jagal rek te dox doxal jàmm ndax ko war nañ koo dóor xaala mu ne ko naam waaw baña baña dóor walhamdu ak yéen ne mu tasiri ci aji diisu même ku la diis sax bu la neexee nga sëf ko daal mais loolu de neexuñ koo xam mu ne déedéet astabir ma tasaqata min waraqi sajar mooy xobi garab yóoru wal mustasir al jamaru samir mooy gëlëm goo duub ñenn ñi mooy gëlëm goo xam ne xam na gi xam na xam na xam na gi gi jaasir duy jur ak gi jur ak gi jur wa aydan al jamal alladi yaarifu laaqiha mooy bii jur mina laa ini caay njaay xaala gune gi ne ko ayu asiru ndax dana dóor mm. taasir mooy dóor yoo xam ne ak bun si géden mm. arrajulu waay abahu baayam mm. ndax kooku dana dóor baayam xaala abu faqiwul arabi ne ko ah yamaalo dana ko def albër waaji baax wala yaa baaxu dëgg ma bañ de mu ne de xanaa dóor baay xanaa mu ne de attendir mooy attendir màggal wa nusra ak dimbale wa tawxiir ak wegeel xaala gune gi ne ko ah, maa taqulu loo wax nag fii man ci koo xam ne af xara ñàkkal na axaawu mbokkam koo yóbbee mbokkam ñàkk na yàq na la xamoon de kooku loo ci xam xaala abu faqiihul arabi ne ko habasa baax na maa li nga xam ne na ko ah loolu de jëflante bu rafet la <laughs> mu ne af xarahu mooy ahaarahu naaqatan yarkabu xifaaraha mooy da ko abal gëlëm muy war digg gannaaw mm. xaala gune gi ne ko mm. waaw fa in enra bu raf leelee nag wala dawoo doom su fittee doomam mu raf le nag mm. xaala fa xiiwul arab ko yaa kaay leen yaa hus yaa hus na maa xoonaa rafet ak li nga xam ne ñe eh, tama doo jublu na kunu kaa ñu bëri dañ ko ci naw ndax loolu baax na <laughs> raf leen de mu ne enraahu mooy entaahu samarata naxlatin aman mooy li ñoom xeri bi ñuy jàng ci xaala gune gi ne ko hmm. fa asla bu jaarale hmm. moom la ko woo jaamam annaara safara hmm. jël jaamam taxawal ko ci safara tàngoor yi di ko lakk loolu bu ko defee loo abu sayd ne ko loolu laa isma déet bàkkar an ko ci war wala xaar du jàggeen gàcce mu ne ko loolu de amul wax ni dara nga gaa la yem baxi ay yohan siba bin naari illa rabbun naari loolu de neexut a xam mu ne déedéet li ñu wax ci imam loo mooy alhajiru alladi qad ujida ajnuhu hatta qawiya mooy lacc biñ lacc lacc bu rafet mm-hmm. ba mu dëgër xam nga dañ koy togg mm-hmm. dañ koy togg dañ koy suusal mm-hmm. suusal bu baax xaala gune gi ne ko aye juus ndax dana dagan lil marati ñaar jigéen antafrima ba mu antafrima ba mu dogu haat ba nga laa borom këram ndax jigéen mën naa dogu borom këram xaala abu seydi ne ko maa xadara terewul aadun kenn fi ne laa ajab loolu kenn ayewu mu ne xanaa xanaa kenn nangu ko ñu waaw mu ne albaalu annaxlu alladi yasrubu bi maroqihi min al ard mooy tàndarma boo xam ne garabu tàndarma soxla lu roose te bu sax dafa jege ndox xëy na laalanteeg ndox mi tax muy dem xaala gune gi ne ko faatuwaat dëggu ndax dir na yar almaratu jigéen xaal xajali ci rus jigéen nga xanaa bu rusee war ko yar pour mu ko defati xaala faqihul arabi ko ajal waaw bañ a yar loolu ku koy def ne nag waa ñu kat yi fi jom la di mu ne alxajal mooy ñaaw nooy xamee xalal mooy su oxtimalil xena yàq xalal wa minu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lin nisa ci la tukkeel yonente wax jigéen ñi ne inna kunna yéen isa joxtunna bu ngeen xiifee deqin sunna ngeen toroxlu mm-hmm. mm-hmm. wala sabin sunna bu ngeen reggee mm-hmm. xajil sunna ngeen di yàq gune gi ko waaw maa taqoolu loo wax nag fii man ci koo xam ne naxaata xett na mu xas la taax yi garab ak mbokkam dafa am bant mu yekk kooku loo si xam xaala abu zeyd ne ko asima bàkkaar na de walaw asina doonte digal na mbokk ma hmm. fii jëm sooy ba mbokk mi ne ko xettal waaye lam de baaxul hmm. ki ko moom may la fu nga ne baaxul hmm. mu ne naxaata aslahoo mooy isax taabahoo bu ko jëwee waaw ñoo dañoo wax ne dagal na ci nit mu ne maye na dara lu ko nit waxee du la ko jàppee xam ñu waxoon loolu kenn waru koo def ndax lu dugal nit ñi di mooy yàlla rek waaw ñemeloo nit ñi mooy yàlla rek dina ko baax a baax qadaa fi nafsihi qaala gune gi ne ko ayahjuru ndax dana hiit alhakimu aji hàtte ala sahibi sawi ci borom nag ndax ko amee yëkku nag hakimul muslimin war naa mën a teg loxo ci yëkku woowu ne ko dullu la neex moo cee doxale qaala abu sir ne ko naam waaw loolu moom mënu na li ya mën a ngir na mu góolu xaylatal jawri maanaam qaala faqiihul arabi laa hmm. wax aji yongaani njàng mu ne xam nga tooñkat yi buñ bëri doo kee ko noonu ko ah waaye de wax dëgg yàlla ko ànd ak xelam de soo ko ñëw du ko neexee jëriñoo mu mm. asawru muy aljunun mooy ndox mm. borom mën na saytu alal mm. soo amee wërsëg bu amee mën na saytu alal dañ ko teel xaala gune gi ne ko faal la woo ndax ñi mu dóorat moom hakim ala yadi le timi loxo qaala buni abu sayd faqihul arabi ne abu sayd ne ko hmm. naam waaw waaw hmm. ilaa yastaqim ba mu jub hmm. lu neexu da xamay daraba ala yadihi muy hiit na ko tey halala isaa jaran alay qaala gune gi ne ko faali joosu ndax dana dagan a yastaxida ba mu jàppat moom haakim la hoo ñaal jirim ndax hakim mën nay jàppal jirim dégg nga dégg nga rabat mooy lu mel ni kër gu génn dëkk bi wala ay garab yu génn dëkk bi hmm. mooy rabat ma kaana xarijan an suuril mais am niyati damay ne tabax bu bari sa dugg ci biir dëkk ndax loolu mën nga koo jënd ci alali jirim pour muy moomee na ko laa jirim walaw kaana dool di nekk na lafoo di ñaar jirim mbiri tan fira ma ne war da hay rek parce que defarat wala mu arabat mu asaw ja jabar xaala gune gi ko a fa mata yebbi ma kañ lay jaay nag badana sabi yaramu koo dof ni koo xam ne mu xamul njëriñu halal kañ lañ koy jaay moom hmm. qaala muslim abu seri ne ko kene hmm. yara waxtu mu gisee la wa ñaar ala ko cër fii ci moom ba bu gisee ne jar na hmm. ne gor na mos a jaay doo jaay ñora di fa tee doon gor mu ne badan mooy addiron alqasira mu ko mu gàtt qaala gune gi ne ko faali joosu ndax dana dagal ayeb temps ba mu jandat moom hakim la woon yaa safi Hassan hmm. yaakaar naa mooy wono du sangokaay ak yéen a cabinet hmm. ndax loolu dañ ko jàndal safi xam hmm. de ndax loolu dañ ko jàndal safi xam de numéro bi num de six walla mooy cabinet dégg nga amul njëriñ xaala Abu Seyl ne ko naam waaw isaalam yëkkut bu nekkoon Hassan de lu ñu dikkal wa de lu ñu ma ne ko ah loolu jënd ko jëriñ xam nga lu jënd ko sëf xam nga lu ko jëriñ hmm. mu ne alhasu an naxlu al mujtami hmm. xaala gune gi ne fu ayee joosu ndax dana dagan hmm. ayee ko ne bu ne kat alhakimu aji ate bali man de aji tooñ ndax loxoraan bu mën a tooñ mën nañu koo fal ne ko yaay hakim bi xaala abu sis ne ko naam waaw isa kaana bu nekkee haali man de aji xam gannaaw xam na ma ne ko ah tooñ kat nag de buñ ko falee kon kay nga jàmm de am mu ne asaalim alladi yasrabu labana mm. qabla an yaruba muy xorija sagodo mooy koo xam ne su xamee soow mm. dafay naan jënd muy boppaat mm. di dindi diw gi xaala gune gi ne ko ayus tax daa ndax jëm na xàtteloo man koo xam ne lay la fa dédd nekk ñaal ko basiratun di sa xol koo xam ne xamu dañ ñëw ndax ko wane bu fa xali xaal abu sëy ne ko naam waaw sunat baraka tey mi ñu assuré gannaaw jikko ji rafet na dara newu ca hmm. ma ne ko ah man de koo xamewul loo xay loo loo xay hmm. na moo rafetee jikko xamu ko hmm. mu ne albasira mooy ak firtu défense défense mu ne gune gi ne ko ah fayin taharra bu rafle woon menen xaqali ci xel naka bu amul xel na xaala ab waseyni ne ko ka loolu man wàllu fàttali mooy adresse mu gëneen foofu la gën a jëm quoi <laughs> ah, loolu de mu neexul a xam ko amul xel man ta xam temps ali bu soree mu ne an aqlu darbun min al wash min min al wash ci ne kii bi xel waaw xaadi joo amul xel moom loo ja xam xaadi joo amul xel xaalaa boo sëydi ne ko saa sa loolu on wàllum fadli mooy adresse bu ngëneel mu ne ko tigi noonu la mu ne alxaqlu darbun min alwasiq xeetu kodday la mhm. bu xam ne nooskat yi ñoo koy amee mhm. xaadi na bu mën a muñal noos dañoo mhm. gën a yàggal ci moom maa xaada bu ne ginee ko fayin kaana bu nekkee la woo dañu xal xaadi sawu jabbaarin reylu fett fetelu akun reylu sawu jabbaarin reylu fetelu akun su fekkee dafa doon ku rëy lu ku féeteerlu na moom xaalis doo ca xam. xaala hmm. boo seetlu ne ko lay kare bee ji nga. xale yi da ko war ci lool. Hmm. wala yi baal ba caagin rëy. Hmm. loolu tax ñaan kii nii xaalis dëgg. lu tax ñu ne matul xaalis. kooku moom bu ko amul ñooy. man waxee wuñ nag mooy asfahu mooy albudru almutalawwin wal jabbaar al naqlu allatifa al yadda wadajurul qaaya mooy meññetu tàllal moo bu àgg ci boobu moo see mu neex loolu mooy sawu jabbaar mooy tàllal bu gudd goo xam ne boobu yóotoo doo ko jox xaal yi xam na loolu ak xamu ko ñeneen kër te loolu bu baax tàllal bu yoo xam ne mën nga yóotu meññet ñu ne mooy qaaya xaala ku ne ginee ko aye joosu ndax dana dagaan aye koona bu nekkat asaayidu aji seede muriban di aji dikk loo xam ne amuloo ca lu leer ndax man nga ca seede xaala boo seede ne ko naam waaw isa kaana bu nekkee ariban di aji selu gannaaw xel mi dara newoo ci kay loolu hay ah mu ne sikki moom dara la ca sikki moom dara la ca wax dëgg yàlla mu ne al murib alladi yakunu indahu labanu rahibu mooy koo xam ne dafa bëri soow muy indi daal hmm. mooy ko bëri soow rahib hmm. dégg loolu du dara wàññi daal hmm. xaala ku ne gi ne ko fa imbaana bu biree ne annahu naka seere laata def na mu la nit loon ne doon def moom loo ca xam xaala boo seen na bu wóolu de kamaalaw xaata mu ngi mel ni moom moo ñëwoon rek dana hmm. hmm. hmm. ko diwaat ci bakkar yu mag yi nag kooku parce que la warul man warul mu ne déedéet laata alxawda laata raax na alxawda mbalka bi ida tayyanahu bu ko raaxee ban parce que liggéey rek la ba di pour ko ko ci maanaam ko xaala ku ne gi ne ko fay noosira bu bakka dalee ne mooy ku yëgeetee ala na woo ci nag kii seede xar bala lay ne jël na tamit Sénégal bu demee la jël tamit mu lay daal. xaaral boo seetlu ne bee trop de dem na nangu dem na delloo saa la doo seetee wala kooku ba dem ko nangu kooku moom. ah du seet. lay. rek ah moom dëgg la kii hmm. rek la. mu ne xaaral bala mooy xatala rey na nit. si la tukkee li ñu naan saral muluka hawlahu mu xaaral bala jëriñu rey. xaala ku ne ilee ko fayit wadaha bu leeree ne am na woon naka feere kat marin aji fen la waa teere bi su wóoree ne fay fen la xaala abu zeyd ne ko huwa loolu ee wasful meloon la wa ñaar ko sayrul wulaaji rafet mu ne ko loolu dañ ko koy nawee rek mu ne ko benn mu ne maa in mooy koo xamee jaboot maa na yemoonu maa na jabootu na yemoonu bokkut ak maana fenn yëmin mm-hmm. almaayinu haahuna mm-hmm. alladi mooy koo xam ne yowoolu day xamee njaboot mm-hmm. wayak wi te muy fegal nit almuunata coono min maana yemuunu la min maana yemin xaala bu ne ginee ko maa ngi jibu lu war xala xaabidil xaq ci kuy jaamu borom nit buy jaamu borom bi lu ko yoon de war a teg xaala boo seedi nee ko yoo xam ne bu dee ko giñ loo de. Hmm. lii daay naa ko ci borom bi de giñ lay de. waaw ah, jaamu yàlla mooy lii sax daal di. mu ne alhaa bi mooy ku di weddi alhaa ko mooy bor. Hmm. nit ki foo wax ne yaa ngi ko ameel bor. Hmm. nga ne ameel loo ko dara. te teewalu seere. da lay seetal fa ngay giñ. alhaa bi. xaawu naa mooy aljaahil kuy weddi. wal xaq mooy addaynu bor. parce que xam nga ko ci ñaari maanaam yi bokk. xaaral ku ne gi ne ko. maa taqoolu loo wax man ci ku xam ne faqaa fukk na mooy génne na. Mhm. ay na bulbulin ba sa picc. Mhm. amilan daa ji tey ku luqi ba sa picc te moo ko tey kooku lu ji yoon sant daal. xaaral mhm. Abu Zayd ne ko suuf xaw a def na luqi aynuhu ba tam xawlan mbir moom muy wax waaye daal di lu jeex mun kooku benn wax luqi ba sa picc. ma ne gaaw ba ji sa picc ci fay kon mu ko wuti. mu ne al bulbul mooy al rajulu xabiir nit ko oyof mm. ku lu xibbatal kay dee fay mm. waaye lu xam nga ko ci maanaam yi bokk ci mm. xaala ko fayin jaraha bu bu jamee xataatam raatin sippri fam jigéen fa maata jigéen ja dee sippri bu mooy jigéen moom fa mu dee moom la jam sippri bu ma dee wala jigéen ja xaala boo ne ko an nafsu bakkan bi na il faut que bu ma dee waaye rek ci ci ñu rey mu ne alxataatu maa baynal wara kay mooy ci diggante ñaari lu foofu lu jël ñu mu dee yaa bari soo ko tey rek ñu bañ xaala gure gi ne ko fa in alxat bu sànnee alxaamilu aji henu hasiisan boo hmm. min darbi ci dóoram hmm. moom dëggoo door Musa ni ko diine moom ko ko jaxam xaala Abu Seydi ne ko la yukka fer na kaafara bi insaati ci goreel jaan goreel jaan an san bi ci bakkara kooku doo war a goreel jaan mu ne alxaamil mooy jigéen joo xam alxaamil mooy xamu xaala gune gi ne ko hmm. waaw maa ngi ci bu nu war nag xalal moxtar bi ci kuy làkk bi hmm. saray ci sëriñ ak koo xam ne day a na bu di làkk du ko kenn gis ko hmm. pour di sëriñ ak wax xaala boo sëy na ak xanoo toog loxo di xaw ma dara ne ngir taxawal day ci tax ba di loxo parce que mu làkk yoonu dama xaala gune gi ne ko fama yus na on lu dee bi def bi man ci koo xam ne saraka sàcc na asaawi da daari ay jaari kër ko leen dikka jaane ma ne moon bu naxante yoon de dee demam moom ko ngi ci yoon woon ala gone na raa yokko taw seen na dagg loxom insa way na bu jaani hemo he du bon a dinaari du bon a dinaar na ko jaar rek kañ daan la moomee rek ni <coughs> mu ne al al al azawi mooy al alatul mustaamala mooy njëgoon luy liggéey ci kër mm-hmm. kan ijaana lu mel ni fóotukaay mm-hmm. wal xirri ak lu mel ni caméra toggeekaay mm-hmm. wal jam na ci ak sabal defukaay balaas yi bu ko ni sàccee su ma teen ni sa wax bi dagg la ko xaala ku ne gi nee ko bayin saraka bu sàccee su miinaan aji boor min sahabin di wuru nit ki bu sàccee wurul woo foor a foor na ko lu ci yoon santaane hmm. ala boo seet na ko laa xaata xamul dag loxo hmm. kama law xaata bu nga mel ni boo xaata loo xamul dag loxo hmm. nga ne wurul woo foor mu ne asami mooy asumul sumunul dinaari matul nisab delloo kama yuqaalu fi nisbi nasir ma balaxa mutaadi wala nasifa oo xam yoonu jaati wala ñu sudus si sadir xaala gune gi ne ko waaw bayin baana bu biree xanal maraati ci jigéen asara ku cay jigéen bu sàccee weeru suuba ca xaala bu seen ne ko laa raje def bakkan xale yaa de ko war ci doon wala farat lu jàggeen ragal loolu de waay dara du ko ci fekk rek nga ne ko sàcc mu ne asara mooy alxarirul abyad xarir bu weex jigéen mën na ko saw jigéen bu sax ñoo ko dara xaala gune gi ne ko ayaan aqidu ndax dana fasu nikaahun sëy boo xam ne lam yasadu fekke wu ko hmm. alxawaari ay xeeti picc la xaari hmm. ya mooy mufrad ñi takk sëy te picc yooyu ñëw hmm. pour loo ci xam dina ko doon xaala boo sëy na ko laa wal xaala innaa ko jàll mi daa ji bind albaari ku daa ji sos man ku ma dégg wax ne loolu mën naa sotti ci li ci neex rek ñu jëflante ñu dem nit la mu ne alxawaar yi mooy assuhóodu ñuy seede hmm. li annahum yaqruna al asiya ñooy topp mbir yi hmm. ay yatatafawoona ay nga koy topp xaala hmm. ku ne ko maa ne baatat fanaan na mu bi laylati hurratin ci guddi su marul da topp de law ko fii ha birete ha ci ci yoon mooy ci we am ci suura din ci jëf moom mayee ne ni mu fanaanee guddi go ci njël mi dëpp ko loo ci xam xaala bu seedin ne ko yëgi bu dana war la a ñaan ko nit ku sa da xëjal wa li can wala sa sa mu waa te du ko waxe dëpp sa la ne day fase ne ko déglu na mooy dama ne baatatil aruusu bi laylati hu istamtana ala zawjiha muy borom këram jaxasoo di wax lahu ñaal abu zeydin assailu aji laaj ki doon laaj abu zeydin na ko lillahi kiman ñaal na yàlla darruka bari sow bari sow dëgg dëgg borom xam-xam dëgg min bahrin ci géej goo xam ne la yuxatxiduhu mënu ko ngacci almaatihu aji wëgg wa tey fóode joo xam ne la yabluxu du jot matan woo takkam almaadi waa ji takk géej la géej nga ko xam nu la waaye wëgg wëgg daal hmm. du la tax a ngacc ndax ni nga xóotee fóotee hmm. nga joo xam ne itam lu la waaye war a taggee rek hmm. fekk na romb nga ko tajawasa qadral madhi hatta annahu wala hatta innahu bi ahsani ma yuhda ilayhi yuhaabu mu ne waa ji mel dara jaam dafa romb taggi nit ñi mm. yow mi ne yaa koy tagg mm. la nga xam muy dayob du rafet mm. soo ko waxee ñi seen li nga wax ak ni mel dañ naan da nga lay wax da nga yibal da nga ni mel waxoo ko loolu lañ lay wax ah tajawasa qadral madhi hatta ka annahu bi ahsani ma yuhda ilayhi yuabu lakin daaka fitrun an masiri lu sabab na wuloon la xar yu bon wa baxrin maanaam waxibin ak kóodi joo xam ne la yebluxu du jot ma daa war taggam al ma daa ji tagg suma atraqa topp mu sanaga xale bi dal di sëgg nag itraqan xay xayi sanaga la aji kertaw ndax njàmbar gam engagé woon góor gi wa arab moom mu noppi hmm. irmaamal ayyi hmm. noppi aji lot aji dël aji tëlee wax hmm. mu ne mekk mel ni ko mënatu la wax fa qaala daldi wax la hoo ñaal ko abu zeydi abu zeydi ne ko ihin dollil yaa fata yaa waaji fa ilaa ma taaba kañ fa ilaa ma taaba kañ aw yow la jël indi beneen laaj moom taaba ngi dem loolu ko yow lay déglu indi beneen laaj daa maa ngi dem hmm. yii ñun dollil yaa mataye waaj hmm. wa ilaa mata ba kañ hmm. wa ilaa mata ba kañ fa qaala daal di wax ki doon laaj dama ñaal abu zaydin ki doon laaj abu eh, ki doon laaj abu zaydin ne ko inna wa naka luy mbir lam yam xadde fatut fi kinaanati ci suma tunkaar mbir maa tun sànni kay te mu daal dara dara lu lay wax ma xayma foofu lépp la wax la woon daal laaj na la wala desatu ni tam mu maaraatun weerante wante israf su ñu kay ci gannaaw fekk sa te li nga ne inni la faqihul arabi wa alamu man taatal jarbaay xam ne dëgg la dëgg am na mu ko waxee am ko billahi gis naa ci ayub ne abdin ana jën doomi suuf la am te waaye ana ko dëgg kama lëf lu mag axsana rafetal na ma abanta sëg biral kama axsana bayaanak wala kama lëf lu mag axsana rafetal na ma li nga abanta biral nga ko dëgg dëgg ko am biral bu rafet la fa am sada bu serin dal di sadd bi lisaanin ci ak barsa saliqin bu daa ji ci wéy ci lamiñu fasaha ak baat bu yëkkate mu ne ana fil aalami musla mm. ana fil aalami musla mm. wa li ahlil ilmi qibla xayra mm. anni kulla yow mu ana man muslatun kem léeb laa mooy ku siiw laa ku feeñ laa fil alami ci alam bi man ci àddina bi fu ne xam nañ ma ne léebu siiwee noonu laa siiwee wa qiblatun jubluwaay laa gagee waaye nag yàlla kenn ku nekk lam ko may rek ak lam ko nattoo waaw xëy na at lii sare man nag ah comme yow mi bu nekk daal bay na taaritin maa ngi ci diggante tëdd tëddlu rek ak si léegi de noppalu waaye xalatin ak laq wala waaja tubi na mooy fa nekk fenn koo fekk daal baa faa rek wala maa fa war a bu jógee moo tax tumaranke wal garibu daar aji tumaranke kër law xàll bu wàccoon bi tuuba xam na ñu ne hajjana la ñu ne garab la buy garal hajjana lépp waaye lu mën a xew barab bu neex la mu ne ko fa demee woon tumaranke kon it lan ko tëj bi tey loo ñaar summa xaala topp mu wax abu zeydin ne allahumma yow buur kama jahantuna dégg nga ñu defee ni ko ngi ñu defee hmm. ñu man ñi bokk ci ñi nga xam ne guddi ya gindeef na ko hmm. gindeef na leen ba yahdi te ñuy gindi hmm. fañaanam yàlla nag leen def mi man ñi bokk ci ñi nga xam ne yëftadi danañu gindeeku wuyu di te ñuy joxe addiya yàlla yaa ngi jox xam-xam kër yi ci xamle yàlla na nga def ñoom mën a xam ah def ñoom fonk xam-xam bu tax ñu joxe addiya <laughs> allahumma yow buur kama jaatuna ni ki ngi defee ñu ni ki ngi ñu defee même man ñi bokk ci ñi nga xam ne hudi ya gi def na te ñuy gindi fañaalum yàlla nag leen def man ñi bokk ci ñi nga xam ne yes te di danañu gindeeku wayu di te ñuy joxe ak mu ne fasaqa dal de màng alqawmu nit ñi sawdan ab lim ci gélem li ko dalee ñett ba ci fukk ci gélem mooy sawdu ma xëy na dina ànd ak ab jeereer mm-hmm. xam naa saxal nañ ko moom jàmm bu jigéen mm-hmm. jox nañ ko bàyyi gëlëm wasaaloohu ñu laaj ko ayu suurahum ba mu nemmee ku leen mm-hmm. na ta jamono baax alfay na ci gannaaw jamono ñu ne ko suñ xamoon foo dëkk man dana siyaare ji waaye gannaaw dox la la ah, nga dañuy boole ci yoon suñ ñu la namoon <laughs> lañ ko laaj léeg nga jaar dañu boole ci yoon bi suñ la gis rek ñu ngi la dama de wasaaloo ñu lay ko ay suufu ba mu nemmeeku leen hmm. alfaynata jamono baax alfaynata ji gannaaw jamono hmm. fanahaata mu buur yu man nii him si leen mébatlu hmm. alhamata dellu wuyu la jiite muy mang alxamata jeber la wa sawda ak gëlëm ya mu waaw kon it de yaakaar naa baax lay def waaw kon it yaakaar naa baax lay dem de hmm. al jox nag daal di jiital liñ ko jox di hmm. hmm. ko fa qultu ma wax la woon ñaar ko ma ne ko ah di sama gëj bi gëj sa bi xaal moom nga daa di def man ka ni koo xam ne ba neex ab tey rek la xam xeet dara njëriñal ëllëg ku laala bowoon nga de safiihu mooy koo xam ne bànneexam tey moo gën a jëriñ ëllëg fa mata sirta kañ nga mujj faqiihan te borom xam-xam fa dalla mu daal de saxu ne yaatan ak liire jëru de waneewu su ma ko dafa bàggante tuuti summa am saa topp mu xaraf yokku di wax mu door a topp ne la bistu li kulli samanin buusa mm. wala bastu farfayhi noomar wa buusa mm. wa asabtu kulla jalisin bimaa yulaa'imuhu li aruuqa al-jaliisa fa inda ruwaati udiiru al-kalaam wa bayna as-suqaati udiiru al-ku'uusa wa tawran yu'di usiilu ad-dumaa wa tawran bilawi asurru an-nufuusa wa aqri al-masaami'a innamaa nataqtu bayaanan yaquudu al-haruuna as-samuusa baax na ko wóoree mu ne ko déedéet. ah meloo mu ne labistu hoo doona mm-hmm. li kulli samanin ñaar jëpp jamono mm-hmm. lu bosan ko day man na jamono bu nekk nu mu dikkee rek mm-hmm. noonu la daa nekk wala bastu jaxasoot naa lamba jànkuwante naa la jaxasoot naa far koy yi ñaari soppati jamono non maa xéewal boobu saa weesu naa ci neex neex naa ci waxaan sa tu naa kulla jalisin bépp aji jékki haale bi ma ci loo xam ne yow laa yëngu moo dana askanam na moom man képp ku may tooga nam déggoo lay toogee moom li al waxal ngir na yéemuloo ak jëmit laa ji jékki fahen da ruwaati bu wayu solo yi su ma demee ci barab boo xam ne yëpp yi daaraa fa nekk way sàngama hikma sàngam ak hmm. naadira sàngam ak hmm. hadis sàngam ak yooyu hmm. buñ ca àggee udiru danaa wëndeel alkalaam wax da nga xool ne mag bi bi mahfuda wa bayna suqaati ci diggante way sarwikaat yi udiru danaa wëndeel alkuura sa kaay su ma demee ci barab yi yëpp sago yi la da nga yaakaar ne maa ngi dem bakkane wa usiru danaa danaa di yolalee adduma haron nga ñi tawran ci bi wax di ci sama waare waaye waa suru danaa de bégale adduma sa bakkan yi tawran ci yenn bi la sama ci sama ko wa aqri danaa ganale almasami a noppi yi imma na tax su lu bayaanan biral goo xam ne yokkoodu dana mu omat alharuna aji faraw hmm. mooy fas wi xoox wii bañ hmm. asamu sawur aji faraw ñu hmm. jàng ne noonu harun mooy fas wu naqari yoon mooy wi xoox léeg-léeg su ma waxee xamul naa ci jël kuta naa ci jël kuta waa xëy danaa ganale almasami am noppi yi te maanaam waxtu bu ma tuddee bayaanan biral goo xam ne yëppoon dana mu doxal dana mu xonga alharuna man man mu ne wayin seetu mu soobee mm. arhafa gorilal mm. këppi sama tenk mm. alyaran ak kalimba fasaqata muratal durral wurus woo xam ne yoo xam mu taralal atros ak kayit su ma neexee ma téye sama xalima bind loo xam ne kenn du ko néega ñàkk a mooy day taral kayit wakam muskilaatin bëri na ay muskila ay lënt lënt yoo xam ne xakkay na ni du nañu asuha bidiwu suha bidiw bu nëbbu la xamaa an ci nëbbu fasin nañu mujjee su moo san de ni ay jant bi kas bi ci sama mujj bay na masala yoo xam ne yu tënni ñu bëri la sew sew yoo xam ne yu fàttu ñu bëree bëri la ma leeral ko mu jege lool wakam mu la gin bëri na ay wax yu xorom lii ñaal ma xalaat na yooyu huruñ nañu alma koola xel yi waas ar na te ñu desal bi mm. kulli xalbin ci bépp xol rasiisan di di tàngoor rasiisan rasiisan laal ak tàngoor waaye sax ak dafa lay jub benn ay wax yu xorom yoo xam ne su ma ko waxee mm. ñu ko dégg mm. dama leen di bàyyi yaram mu tàng ndax sax ak parce que mu lay benn ay wax yu xorom li ñu ma xalaat na yooyu wuruñ nañ alma xoola xel yi wa asarna te ñu desal fi kulli xalbin ci bépp xol rasisan njël benn sàngo hmm. waa dara bëri na xéeg hmm. mooy xasida bu kenn mosta génne hmm. foo tudd naa bi haji parce que naa wëññeeku asana o tagg te lii xam daa ji boyu aleyaa ci moom abisan de lu ñu tëj aleyaa ci moom suba mooy la wax lu ñu waxati ne waa dara bëri na xéeg mooy xasida bu kenn mosta génne kuutu tudd naa bi haa ji moom fa sanaa wëññeeku a sanaa u tagg mm. alay haa ji moom taliqan daa ñu tëj mm. yi mm. ay mawahib la yoo xam ne am naa leen waaye nag kenn ku nekk ak mayam kana wax na may kana wax nattu mu ne xalaa am na man nag xusistu jagaleem na min sama nii ci jam sama jamono bi kay din ci pexe mm. moo xam wala kayda firawna mm. du càggeen pexe la firawna ga mm. Musa Musa firawna mafoolam kayda la waaye sama jamono daf ma pexeel ba gañe ma pexeel boo xam ne wala kayda firawna du càggeen fexe la firawna Musa Musa mm-hmm. di warul buutur yi dama ko daan yër mm-hmm. waaye ci ma ragalee waxi soara yi mm-hmm. ay gaa yoo xam ne am na lu jaar seen diggante buur bi ñu bëgg ku leen gàntalul muy benn xasida jëmale ko ca buur bi te gàntalul mu'jara qati'atun lam takun bid'an wala ajaban mu ne ñii liñ def bàkkaat la waaye du lu tumaranke qad qati'at anbiyaullahi wa rusulu mu ne anbiyaullahi ak rusul rusul yi bañ daan bañ daan def bàkkaat xam nga axta a mooy juum na mooy na sawab ko defee xasa u mooy lisimam hmm. yuxti u mooy feelam hmm. xam nga feel bi rubaana yi la hmm. bokk la xati a bakkat na dem na lu bon xit u inna xatlahum kaana xit an kabira wala xati atu mooy lismu bi mooy bakkat ñi ko jamoole xataya bu jamu taksir wala xatiaat hmm. bu yom salaama hmm. moom mu ne xat xatiaat anbiya wallahi loolu li mu war man koy war mënul daa hmm. yonent yi daal moom seen mbir moom man daal li ma ci d'accord mën a màgg rek d'accord waaye waaye daal wax luy niroog bëccëg ci kenn daal yu saheru dana mu taal moom jamono lii ñaal ma ku min ci bépp bés waxan ka rek jamono daal lu mu set rek mu ngi seetlu maçon gi muy xare boo xam min lafaha ci takk takkatam watiisan na watiisan pour na par pour na par lu xam ne bu wayat ruquni dana ma fëggee moom jamono mooy dana ma bettee hmm. bil xutoo bi ci ay mbambare mooy ay mbir yu diis hmm. allati yoo xam ne yu sim na danañu ruyal hmm. alquwa ay kattan yu sim na danañu béjawloo alqusa ay bopp luy màggatal li te weexal kawaat te mooy ay métti métti loolu la wante wayut nii dana mu jege ñal moom jamono ilaye e jëm ci man albaxida aji sori albaxida mm. la di duñu bañ mm. heure bu ne daal lu ma neexul rek mm. lay jël sa sori ci man wayu xet dana mu soril xam ne yee ci man alqariba aji jege ala ne sa ko aji wéttale koo xam ne na maa jege de su ma wéttal rek dana fexe dox su ma jege teg moom teg ma walaw laa xasaasatu alaaqihi bu dul doon xees ak ay jikkoom nag lama kon du nekk xasa yéen sama cër mi nu jam xasi san de aji xees loo xees la <coughs> ma sedd rek ñu xeesal walaw laa xasaasatu alaaqihi bu dul doon xees ak ay jikkoom kon lama kaana du nekk xasa yéen sama cër xasi san mi nu jamono xasi san de aji xees ba qultu xabit na nga suufeel alasaana jàqare yi wala tulum te buriat asamana jawar waskur te na ngay sant li man ñaal buur bi nga xam ne naqalaka na mu la min bi iblis a tukkee ci masa bu iblis allah Saafi'i mooy hmm. Muhammad ibnu Idris hmm. yàlla hmm. mi la xamal fiqhu Saafi'i musal la ci réer gi Iblis de mos de baabee nit ñi yàlla war nga li ngay tawat ci jamono nii dëgg dëgg daal fu nga nga loo sant yàlla loolu laa ko wax dafa bàyyi ay taara waxi ne ma iso yi jëmul fenn wala sa tig tëbul xote alastaara kii day dafa am ne day tàgg sa wala buural bi naa faa ka jàppal maa loo xam ne yas bi dana mu saafara. al naf sa bakkan. wéyan fii te dana mu dàq al naf sa dana. kon su dee pour mu leer na rek la. déggul maa la ko. xaala xaaris ne na fala maa aw daa ba mu leerale li ñaan ma al mu am ma la ñu jàppe. wa kasafa te mu ñaan ni ci man al xumma walam asal dañu ma fii hmm. hmm. ma da nekk ci lu ni fàtte loo na ma taamal masaqati jafka ak coono wa waditu tema ngeeju maa waan ne ma moo da suqati sorig diggante hmm. min musamarati ngir ngoraan rek ngir ngoraan rek moom baada muddata musamarati di rek do xànd ak moom di dox xànd moom di dox waxtaane xam-xam yi may defal mm. tax na yëguma coono mm. su doon sama di sa sago mm. diggante mag ak Madina day gën a sori naa ñu gën a yàgg walam asal dañu ma asal dañu ma min musaamarati yi ngir ngoonaan lanteeg moom mooy waxtaan yi may defal ci buñ dalee waxtu guddi mu data musaayirati diiru doxlanteeg moom ci diir mi ànd jëm jëm Madina dañoo fi maa da nekk ci loo xam ne antaani Barcelona ma. Mm. waaw man ma soppati jëm kaw coono. waaw man yëgu ma coono. Mm. wàllu su ngéejuwaat na maa waan rek moom moo doon soppati. Mm. bëri diggante. atay la daxal madinata rasuli dëkkab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waxus naa te ñu ne war ama jublu na saam araftu ma nu jublu xelaat wa xaraba mu jublu xarbu wa saraftu ma nu jublu sarbu